ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñi ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyoo bu sell te di leen ndokkeel di leen baal ak di baal ak ñëpp ji jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko amiin amiin di nuyu kilifa yi teew ci jotaay bi yépp tey ji ñëw ci seen tomb juróom-benneelu tomb ci weeru koor waxtaan yi nga xam ne daga mu xam ne tam ma lañ koy amal fii ci jumaa ji ni ñu leen ko waxe woon ci programme bi wala ci jadwal bi ne tey ci juróom-benneelu fan bi danañu waxtaane al buxtul xaqli fi insaniya wal insaaniya fi hayaati Cheikh Xadim radiyallahu taala anhu danañu waxtaanee ci wet koo xam ne xëy na bu ñuy waxtaanee dundu sëriñ bi danañ koy indi ci waxtaan bi waaye néewaa nañu ñu ñu ndeer ko def ci ab jàngat te muy lu am am solo muy waxtaanee dundu sëriñ bi ci yi nga xam ne réussir na ko ci ak dundam lu aju ci xel ak ñor koo xam ne ñor na ci fànn yépp loolu nag daf doon xam ne mënees na cee jàngat lu bëree ci ci man cee jariñu waaye rawatina kilifa guy guy jiite mbooloo wala boo mbooloo moo xam ne dañuy dugg ci biir lu leen di jariñ ëllëg loolu nag tax nañu tànn sunu kilifa gii ngir mu defar ñu waxtaan woowu di Cheikh Mouhamadul Mamoun Mbacké mu Cheikh Mouhamadul Fadal suñu ko tuddee moom rek kenn ku nekk dana ko xam waaye dana ko yàgg gis ki ñu xam ko bu baax a baax ci bu doon borom xam-xam di gëstukat doon tamit koo xam ne day waxtaan di gindi jullit yi ci biir réew mi rawatina bitim réew ci fànn ak nekk en tant que doon ngeen doon suñu kilifa ci barab bi waaye tànn nañ ko tamit ngir leen doon borom xam-xam bu mag te e, doon gëstukat bu mag bëri ay jaar-jaar moom ci xam-xam nga am ay licence yu kawe ay ay ay yu kawe ci wàllu fànn gi doon sàkk ci wàllu moo xam ci wàllu diine la ak ci wàllu àddina su ko defee jàpp nañ ne ci ak mën a jàngatam ak ci gis gi koy gis muy waxtaan ci fànn bu mel nii tomb bu mel nii suñ ko joxee euh, am nañ yaakaar am ci lu kawe su jot sëriñ bi nag waxtaan wi dëng na ko ci ay tomb yoo xam ne dana ci ñëw incha allah ci melokaan yi nga xam ne sëriñ bi jëfandikoo na ko ci fànn gi nga xam ne moom la tuddee thème bi ci digganteem ak nit ñi ak société bi waaye digganteem ak euh, xam-xam am njàngaleem waaye digganteem tamit ak jëflante gi xam ne bi nga xam ne nekk naan ci gànnaar ci digganteem ak naari gànnaar yi ak ci fànn yu bëri ni mu ko fas yéene indi daal dafa mel ne ci dunduk sëriñ bi bu ko toppee mais bu nekk su ci indee loolu day doon loo xam ne dana doon loo xam ne euh, lu yéeme lay doon loo xam ne lu bàyyi kon xel la te te doon lu mat a jàng dana mujjee tamit allah indi tamit fànn bi nga euh, lool ci wàllu ñaanin ñaanin yoon wi nga xam ne daf koy jaar suñu borom ci buy ñaan waaye rawatina ni nga xam ne tamit ni la. réussir ak dundam ci fànn yépp moo xam ci digganteem ak ñoom doon yàlla wala ci digganteem ak kilifa yi diine yi wala ci digganteem ak tubaab yi ci fànn bu nekk sëriñ bi danañu ci ñëwal incha allah su ko defee kon dañuy yëkkati ak waxtu yi allah jël kàddu gi jox ko Cheikh Mamadou Mamoun mu Cheikh Mamadou Fadal mu mu tàmbali waxtaan bi sëriñ bi bismillah ok jërëjëf jërëjëf aoudu billahi samii alim الباقي القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم الباقي القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله alhamdulilah alhamdulilah samiil aliim albaqi alqadiim min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah waxdahu wasalaatu wasalaamu ala alhadi alamin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim taslima subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahuma jaalna min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana wajaal kalaami rachidan wa murchida wa fikrati nawir wa qalbi archida barkab sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk yu baax yi fi tedd tedd yi fi tedd yëpp ñu fi teew yëpp ñuy déglu ak ñuy suivre ci média yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu tàmbali ziyaara bi ak ak ak màggal gi ziyaare bi ci ci ñu nekkal mu di borom yi fii sama sëriñ sama sëriñ ne ko woon yaa sayyidan fil maali xalla charwaahu wa yaa muhibban fuaadi dahra maswaahu inni ataytu li wajhi llahi zaaidakum abghi bihi nayla ma arju wa ahwaahu kon moom la ñuy jëkkal ziyaare bi di ñaan yàlla fayal na ko yàlla tax suñu ci ay barkeem di den xamal ne am ñu mbégte lool ak cawarte ci ñëw fii jéem fee wax dara barkeeloo ko ci liggéey bi sant ko di ñu koy def loo tam ndax liggéeyub Sëñ Tuubaa ku la ca woo bëgg na la dimbali kooku yaa ko amelu cant kon ñuy tàmbali liggéey bi ak ziare bi ci ziare borom jotaay bi itam mu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu koy ñaan mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko gis ko te nu fekkee ko te ànd ko ak moom noonu lañ ko ñaanalee suñu ustaat bu baax bi daan ci dellu si suñu mbàkki jaxate ndax buñ nekkee fii li fi wax moom la ñu war a delloo njukkal ndax liñ ci xamal ko su néew abajidi li ma tuddee abajidi yaatal al luxa al arabia wa abajidi sharia al islamia ci moom lañ ko tàmbalee kon danañ ko delloo njukkal delloo ko delloo ko njukkal siyaare ko ñaanal ko mu yàgg fi te gudd gudd fan te wér lool maa ngi ciy wax sa proposition boo xam danaa ci dellu si wax ne ñun dong yi jaaroon moom ñëpp kenn ku nekk ci boo mënoon a wàcc jëlu weer wàññi ko sëgg bi jox ko ci dundam bu tedd bi bu dolli ko ci dana am njëriñ lool at dana bari lool xam na ne danañ ci saw waaye nag dañ ko def weer rek kenn ku nekk wàññee weer sëgg bi jox ko addi suñu mbàkk jaxare yàlla ci dundam kon mbokk yi dañu sàkku ñu waxtaane al baad al aqli wal baad al insani fii xayaati Cheikh Ahmad Bamba wa wàllu xel ak ci jëf jëfandikoo ñu ko sëriñ bi jëfandikoo liggéeyam may wax kon boo xoolee jëfandikoo sëriñ bi yëpp ci ngeen dégg ko ba tàyyi am na ci loo xam du ci dellu si lu ci bari lool wàllu xel da cee am te duñ ko seetlu boo ko seetloo ci bu mu feeñee ci barab yi mu jaar yëpp bu mu feeñee ci Mbàkke Bawol ni ngeen ko xamee mu demee Pataar demee Xuru mbakke Mbàkke Kajoor ni ngeen ko xamee Poroxaan ñëwaat Mbàkke Bawol sañ ci Daaru Salaam sañ ci lima Touba tudde al Touba al Kubra le grand Touba mooy Touba gi dëkk ci sës Daaru Salaam Daaru Alimul Xabir Daaru Minan Daaru Xuddus daaru daaru Xuddoos daaru Minaan ba ci Tuubaa gi ñu nekk fu ci nekk rek jëfandikoo ne fa jëfandikoo yu kéemaan ci dundam bu tedd ka radiyallaahu anhu ci wàllu jëmmum ja jëmmam ci wàllu njaboot ga ko wër ci wàllu na muy dëkki ci wàllu na muy solo te wàllu la mu bind ak na mu ko bindee ak quantité ba mu bind ak ci wàllu ñu jëflante ak ak ak ak ñuy jamonoonte la woon ci liñ ci liñ ci mën a tudd ak ci wàllu révolu li mu tuddee révolution sociale yi mu def tawra ijtimaa yi ñu def boo xam ne lu yéeme la ñu am ci luñ ci mën a tudd kon dañuy wax daanaka waxtaan bi ci gàttal ci ñetti point lañ koy tënk gannaaw bu ñu ubbee waxtaan bi danañ wax dimension rationnelle ak dimension humaine wala humaine ñaari mbir yu taqaloo lañ ci nit ku nite maanaam al bu'd al aqli wal bu'd al insani amrani mutalazimani lil insani salim ndax kenn waxul kenn du mënta wax nit te waxoo xel kenn du wax xel te waxoo nit tam te nit bu ñu ko wax xel a tax kon ñoom ñaar ñoo lëkkaloo bu ñu jógee ci loola ñu dem ci yenn ci ni ni feeñee ni sëñ bi jëfandikoo xel ba'd mazahir al bu'd al aqli fi hayat Cheikh Khadim loola danañ ci wax ay wenn benn point buñ ci jógee ñëw nag ci li ma tuddee jëflante jëflante bi ñu doon jëflante ak ñu doon dundal tàmbali ko ci jamono bi tedd ja ak révolution sociale bi mu def ak ni mu jaxasoo ak nit diine yi ci ak ak nit Mauritanie ci wàll suñu paree nag daanaka daal tënk rek daal di ma ne yeewee ko Eh, ci gàttal rek gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant Sëriñ Tuubaa na ko te yàlla tas ñu ci ay barkeem barakallahu eh, damay wax ne rek gannaaw bu ñu nuyoo Sëriñ Muntaxa mi borom jotaay bi ñaan la ko mu yàgg fi loolu te wér ni ma ko waxee ndokkeel ko itam ci liggéey bu rëy bi mu ubbi dem démb muy di jamaa Cheikh al Khadim di tarbiyati wa takwin nga xam ne mafxara xarala ci islam bépp di mafxara ci diine jëpp ñu ko ci ndokkeel ndokkal suñu doomu sëriñ Cheikh ak ñu ko jàppale ñëpp macha allah Euh, muy lu rëy rëy loo xam ne ndam la ci ndamal Sëñ Tuubaa yi taxqiq la tam ci loo xam ne ñun it suñ Tuubaa yi fi bàyyi woon ni ngeen ko xamee kon bu ñu ci jógee yëpp ñu siyaare wàkk Sëñ yëpp góor ak jigéen ndaw siyaare sama mbokk dong yëpp siyaare ni ma ko waxee siyaare xaas nag li Sëñ Mbàkke Jaxate suñu Oustaz Mbàkke Jaxate mi nga xam ne moom la ñuy delloo njukkal di ko ñaanal di ko sargal ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko ndax ñu bari ci ñun dong yi fi moom lañ jaar li may wax abajadiyatul sharia al islami abajadiyatul al fiqh al islami ñu bëri ci moom fi lañu ko tàmbalee am na ñoo xam ne jàgg lépp ba ñuy kàng kon kooku ñu ngi koy ñaar mu yàgg fi dëgg damay wax ne kenn ku nekk jox ko mu yokk ci dundam bu barkeel dana ca bëgg loolu njëriñ loolu itam xam naa ne buñ ko buñ ko doon bindutee xat lool dana xat lool ndax ñëpp ko ko yéene ndax liggéey bu rafet ak way gu way ci liggéey bi ak sell bu liggéey ak barkeel bu am njàng barkeel kaar kon li ñuy wax ko suneew day nekk na ala sabili bi daawatukum ruddat ilaykum ayyuha cheikh al karim kon li borom xam-xam boo xam rek borom woy ba rek ahmad shawqi xum lil an yakuna rasula taxiya boobu ak iglaal boobu lañ koy jox ci tuddul ñun mbokk yi fa jaaroon yépp nag macha allah di fàttaliku itam suñu eh, mbokk bu baax ma sëriñ Mamboor Mbàkke ngeen xam ko yéen yëpp fonkoon yu mel nii daan ci taxaw dama daan làqtoo ko defee fa yu bëri dana mu ci puus ndeysaan daan ci puus ñu bëri ci mbokk yi xam ngeen ko ci sawaram ñu ñaan yàlla yokk ko yërmaande ak njéggal fa nekk yàlla taas ñu ci barkeem yokk fa ay leeram barke bu sedd ba ak liggéeyal sëriñ bi ñu ngi nuyu wàkk sëñ yépp nag góor ak jigéen mag ndaw di nuyu sëriñ Afe euh, imaam ak yu baax yi koy jàppale maa ngi koy tooñ sànq ne ko maa ngi ko moom moo doon suñu suñu suñu njaatige ci daara ja te kër ba ñëw si tudd sànq daara yi mu koy tool yu yàgg ya dégg nga mbeddum nayaak dégg nga caafuraak dégg nga tabarkal moo doon suñu jëwriñ ci daara ja ñu koy ziare bu baax di ko ndokkeel ci koor gu tedd gi ak ci war gu tedd bi ak ci jëf ju jëf ju rëy yi di ko jiitee di ko defal sëriñ bi di ndokkeel itam euh, di ko ndokkeel itam moom ay ma yëpp ci weeru tedd bi taxaw di weeru koor nga xam yàlla defal na ummal islam yi lépp ñu tàmbalee na ko benn yoon lu ko a am kon loolu dal dañ ci sant bu baax tey ñaan mu nekk li ñu wax rek ñaar ñaari leen boole kalimatu tawxid ak tawxidul kalima kalimatu tawxid ak tawxidul kalima kon mel na ne lii feeñ ci koor gi nga xam ne jullit yëpp warandoo loolu dañ ci sant yàlla te ñaan mu yàgg te sax ndax li defe naa ne bu ma see amit gën naa am kon dañ ci sant yàlla bu baax a baax eh, eh, di sant bu baax itam mbokk yi nga xam ñoo taxawal lii sëriñ Afia mu xadamatul xidma ma ko waxee ndax liggéey bu rëy la boo xam ne ñun ngeen ci wutu ñu ñoo ko waroon taxaw di ko def kon bu ngeen koy def rek ñoo leen ci war a sant leen gërëm tey ñaan yàlla defal ñu ko lépp ngërëmul sëriñ bi ndax jàkka juma naka jekk dafa ma a nekk barabu jàngale ak barabu julli ak barabu xam tasaare xam-xam juma ni ngeen ko xamee taarixul islam yi du rek asalaamaaleykum allah allahu akbar asalaamaaleykum loolu ci la lenn salaam imaadu diin ngeen koy jàng yéen borom xam-xam yi waaye nag naka jekk ci histoire l'islam juma dafa am ay ay rôle yu rëy rëy rabu jàngale la woon daara la woon conseil de ministre dañ defe dañoo def conseil de guerre dañ daan jàngalee dañ daan tekki sëy yi dañ daan defe loolu lépp nga xam ne dafa am nachaab ñuy wax ne bokk dëkk yeneen jullikaay yi ñeneen xam ne dafa dafa dafa sedd jumaa dafa am yëngutu moom ndax ñu jàngale fee ñu gëstu fee ñu ngay ñu ngay yaa nga fa léegi ñu ngay kon lii dundal loola la ñu jàngale alxuraan ñu koy jàngalu loolu moo daan am Makka moo daan am Madina moo daan am masjidul Umawi ci Damas moo daan am Bagdad moo am Kufa moo daan am Quds moo daan am Tlemcen moo daan am Meknès moo daan am Tétouan moo am Garnata Isbiliya dëkk yooyu yëpp loolu fa am ba ci suñu réewum bopp mi moo daan am Tumbuktu moo daan am Mbàkke Kajoor moo daan am Darul am Darul Alimul Xabir moo daan am Koso Xelkom ba ci daara seen Abibu Mbàkke ji ci Daaru Xudoos kër seen Chouaïb yooyu yëpp moo fa am di dajale di jàng alxuraan di jàng diine di jàng lislaam kon jumaa naka jëkk bii rôle bu ngeen ko dellusee bu ñu bat leen ci roy léegi sant leen ci gërëm ndax ñun ñooy ummatu iqra ummatu iqra nag kon dañoo war a jëfandikoo xel ndax aayal ula bi nga xam ne wax na ci alxuraan ngeen xam koy iqra bi kon dañoo jàngaloo dañoo gëstu te jàng ku ne xam ne instrument bi koy def mooy am xel ay loxo kese du jàng ay tànk du jàng bopp kese du jàng am xelay jàng kon ummatu ummatu bu ñu bu ñu bu ñuy laajee nag lañ jëfandikoo xel jaadu na ndax euh, muslimul awal bi mu njëkk jëfandikoo xel sallallahu alayhi wa sallam mooy aqal xolina kulli wax te alxuraan bu ñu ci delloo ci gàttal rek gis ngeen lu bari day wax ak uulul albaab di wax ak li qawmin yaqiluun li qawmin yafhamuun li qawmin yatafakkaruun li uulil albaab dafa lay borom xuraan ala qulubi naqfaluha li qulubin yadakka li qawmin yadakkaruun kon alxuraan yàgg naa jox eh, yitti am xel yàgg na ko màggal yàgg na ko wormaal eh, eh, nga xam ne Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne euh, léppam islam la léppam diine la sallallahu alayhi wa sallam jumaam jooju daan wax ne innamaa bu'istu mu'alliman booba xalaqaat dañoo bari ñee defi la ñee defi la mais ba mu ñëw jàngalekat yi la toog ma jàngale addabani rabbi fa ahsana ta'dibi lañ ko yar rek conseil de guerre mosar na naa di fi naasiya bilal gars yi dañu la ci jumaa ji discuter la ñuy ba ci ouverture ba sax nga xam ne infitaax al islam yi wax ne am na waftu bu jógee woon waftu naseexe yi bu jógee woon najiraan am na ñuy wax yeneen dëkk waaye najiraan ba dimanche jotee ñu bëgg def seen mees jaaxle ba bu koy mun ba mu àgg ci ko tedd ka alayhi salaatu wasalaam léegi fu ngeen koy fu sama jumaa ji ana awlaa bikum min Aïssa fa lañ defee mees nga xam ne koo xoon fii Sénégal léegi da ngay woote jumaa ji eh, chrétien yi def mees dañu la yow ça ne va pas yaa ngi normal defal na ko jàngale na ko ma ngay jàngale wane ubbikub islam tolérance islam ak ak ak ak defarub lu ma san xew dañuy woote ca ca ca ca jumaa ji yonent bi jëkk ci mu def xutba nit yi donc kon jumaa dafa yàgg am role bu yëngatu bu euh, dëgër kon Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne damay wax ne moo taxarrik la Sëriñ Tuubaa moom dafa tajsiid islam ngeen baal ma ci waxee nii kon jaadu na ci moom loolu feeñ ci lépp léppam islam la ak yëngoom ak dalam ak lépp génnul islam kon jaadu na xel mi nga xam ne islam daf koo daf koo euh, islam da ko jox da ko jox am xel importance bi nga xam ne islam da ko jox am xel jaadu na lool nga xam ne kon mu leer na Sëriñ Tuubaa dina ko Euh, Sëriñ Tuubaa dana ko dana ko dana ko warmaal dana ko màggal dana ko jëfandikoo euh, Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu damay wax ne daanaka dundam bu tedd ga mën ko mën nga ko tënk ci ñetti mbir rek ci relation bu digganteem ak suñu borom relation bu digganteem ak sallallahu alayhi wa sallam suñu relation bu digganteem bu bindee fii ci gàttal du ma fi nekk di wax fii la jaar jàng loolu dégg ngeen ko ba tàyyi waaye boo ci xoolee am ci nakara kulliya goo xam na nga xool une vision globale rek da nga koy mën a tënk ci ñetti affaire maa ngi jégalu na ci benn benn baat tubaab bi ci dugg te xam naa ne mi ngi may dégg waaye day xam ne dañu bëgg a leeral rek kon nag sëriñ bi ñoo ngi jégalu waaw ñoo ngi jégalu euh, relation mag yàlla relation mag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak relation mag bindi fi relation mag yàlla moom bi leer na da koy jaamu darajat yi kaw ni ya abdallahi la bind diggante mag yàlla jaamu rek la ko nekk tawxiid wéetal ko sa melo yàlla ci aju jaamu ko kon loolu seq ak suñu borom alaqatul ubudiyya diggante mag sallallahu alayhi wa sallam alaqatal xidma ngeen dégg ko ba tey xadima abdihi ibni abdillahi nga xam ñoom ñaar ñu dañu boole ci bayti booba darajati kawni abdillahi xadima abdihi ibni abdillahi li coow li mën a bari bari man sama daraja mooy lii rek di jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bi firnde ko te programme na mu ko programme ca juróom benn weer ya salaatu sitta imatxi sitta taatihi batta maati say jëfandikoo xel am foofu parce que plan la def ci arab bi plan moom am xel la koy def xam nga ne weer bi douze mois la nga xaaj ko xaaj ko yu juróom-benn koy def ci nangam yu juróom-benn koy def ci nangam bu noppi di ko roy nag kon loolu plan la moom yu xel la dara ci daanu ko nekku ci waaw kon diggante mag bind fi dañuy jël ak nafal max la li man arada an yantafi'a bu jaagee nag ku neex rek di boo ñëwee ñëwee leneen nag la nga ëmbatu la koy delloo moom waaye soo bëggee jëriñu moom man arada an najaa awil awil awil fi dunya wal axira fal yaluz biya loolu moo ko wax nga xam ne du du maamun Mbàkke wax fa durru wala wa nafon jaa loolu dem na du mukk ba nafu jaa in te ismu faa'il la utilisé nga xam ne it am al istimrar moo tax cheikh cheikh cheikh Sidi yëpp am koy melal jàngeen ko ba tey na ma koy waxee wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafa'ul wara fi subhihi wa masarihi suñ ko daal am na am na ayib ci li ngeen koy waxee ci balaaxa al madh bi ma yusbihu dam nga xam da ngay mel ni da ngay da ngay tagg nit waaye da nga koy da nga koy da nga koy sëñ bi daal am na am na ayib ñaari ayib sax la am da ngeen da ngeen gaaw ndax boo koy leerul léegi murid ngànd la mu ne jaamu yàlla jaamu yàlla ci ay subaam ak i ngoonam ak njëriñ bind fi wa nafaul wara donc waxul waxul nafa wax murid yi waxul ñu ko jege waxul nafa taalibe yi waxul nafa julli bi wax nafaul wara nga xam bokk kon sëriñ bi damay wax ne ñetti relation yi rek mën ngaa wax ne mooy mooy yëbbatu sëriñ yàlla digganteem ak yàlla da koy jaamu digganteem ak yonent sa sallallahu alayhi da koy liggéeyal digganteem ak jaam ñi dañuy digganteem ak bindee fi dañuy jariñ radiyallahu taala anhu Euh, kon li tàmbali ci dundam bu tedd googu li ma ko waxee muy tàmbali ci a chara waa am bon chassin wala 1852 wala 53 ba 1927 moo xam Mbàkke Bool gi mu feeñ moo xam Poroxaan moo xam Kuru Mbàkke moo xam Patar moo xam Mbàkke Kajoor moo xam Mbàkke Bool moo xam Daaru Salaam moo xam li mu tudd li mu tudd Toubaal Kubra muy Grand Touba bi mu ko sasee muy Daaru Salaam Daarul Alimul Xabir Daarul Mannaan Daarul Quddus Daarul Minan ba ci Touba gi ndax bi euh, ba ci boo génnee Touba dem na dem Ndar Dakar côte africaine bi mu jaaroon dégg nga Gabon Mauritanie Thiéyène Diourbel albuqaal mubaraka yooyu yëpp rek li mu ci yëngoog li ci dal du génn yi ma wax jaamu yàlla liggéey leen bi sallallahu alayhi wasallam jëriñ bi fi radiyallahu taala anhu mu jëfandikoo ci xel ay yoon nag lu baree bare mën nañ caa insister waaye eh, dama ciy jaar ci ci ci ci ci ci lu gaaw rek ndax kon waxtu waa ngi waa ngi dem incha allah dama ci tudd yenn rek benn eh, wane ne am xel ak nite daanaka lenn la boo ko seetee ci nit ku mat ndax nit bu ñu ko wax xel a tax xar yeeg bay yi ak tabax yi waxtu ko ñuy wax am xel ndax amuñu xel jamaa daal yi ak xaywaanaat yi kaayinaat yi amuñu nit moo am xel moo tax ñuy wax insaan aqil kon islaam bi nga xam ne dafa jox centre d'intérêt bu rëy la jox xel fo fo la jox nit foog mu jox xel centre d'intérêt bu am xel ba da ngeen ko xamee dañuy wax ne ak taklif ye dóoru dóotan wa adaman ma al aql dañu wax ne olama usul yi wax ne al aqlu manaatu taklif loolu yéen olama usul yi ne jàng loolu manaatu taklif nit ku amul xel kenn du ko gàcce dara nit la ñu gàcce dara parce que amul xel kon nit gi ak xel mi dañoo ànd ndax bu fekkee ne xel mi mahmul la nit ki xaamil la xaamil ak mahmul ñoo ñu mën a ànd li ñu yenu mën a mën a mat ndax ku amul xel moom mënu la mënu la wéy même nit bu fekkee dafa amul xel wala xel mu wàññi ko fu wérut kenn taklifu ko topp ko dara xel mooy fa des da ngay wax ne surut yu mu war a ci islam da ngay nekk baaliq aqil nangam nangam waaye aqil mooy asaas bi moo tax ñuy wax ne al aql manaatu taklif koo amul xel kenn tëgg tëgg la dara ci loolu moo tax dañuy am na ñoo xam dañuy jéem a taarif définir nit mooy xayawaan aqil mooy nit ko am xel mooy xayawaan donc nit ki aliment mën nga wax ne xayawaan la animal la parce que mazahir al xayaat yi nga xam ne mooy feeñ ci animaux yi day feeñ ci nit mazahir yi nga xam ne mooy wane ne bu ñu ko gisee mooy mooy di no di no di noyyi di lekk di yokk di dégg nga di di di di màgg yooyu yëpp nga xam ne mazahir xayaat lañ ko tuddee am na ci animaux yi am na ci garab yi waaye nit day am yooyu yëpp nag boole ci xel nag xel moo ko wutaleeg ñëpp nag waaw moo tax dañuy wax ne insaan xayawaan mu fakkir am ñuy wax ne nit day xayawaan boo xam ne qaadir ala al imaani bil kainil mujarrad bu capacité nit rek ko am ma yàlla ana yàlla gëm ko mën koo tasawur mën koo topp sifaat yi ak ya ca aju ak yëpp ak lam laal ak yooyu bu gëm la cay topp charia bi buy appliqué te gisoo ko bu ne ko laal waaye da nga koy yëg yëg-yëg bu nit rek mën a te li tax tax kon it insaan qaadir ala al imaani bil kaayinil mujarrad kenn ñoom ne nag nit ki mooy xalaat pense donc je suis ca nit ñi féete fële nga xam ne u fakkir idan ana mawjud nga xam ne boobu a isbaat wujudam am na Descartes fu mu nekk nag am na mu koy mu nekk mën naa koy wax lu maa ngi xalaat comme maa ngi xalaat nag am na ndax xalaat ñu da koy def kon mooy wax que je te Descartes au fait que itam anam je pense donc je suis donc pour wala rek ne xel day day instrument boo xam ne moom la yàlla jagleel nit mu koy jëfandikoo pour mën koo jaamu pour mën koo topp pour mën koo distinguer jox ko jox ko ba jox ko barab bu rëy nag te moo ko teqalee ak yeneen yeneen yaa yi moom animaux yëpp garab yeeg ba euh, yi ci des yëpp rek li leen wutale nit mooy ndax yooyu yëpp dañu ko def tasxiiran lil insaan ñu koy def bu dul liggéeyal insaan wa saxara lakum ma fil ardi jamian donc wax naa ne kon li tax alxitaab alquran yi li ci ëpp mu koy jëbale ci ulul albaab li xaman yaaqiluun li xaman yafhamuun li xaman yatafakkaruun li xaman yadakkaruun li loolu lépp wane ne euh, euh, teral ak war ma ko war xel ba ci bu ngeen gisee ci li ñuy wax euh, fiqh al fiqh al maqaasid nga xam ne ñooy seet objectif yi fépp ba charia bi jublu dañuy wax ne ñal ahdafil kubra aw mabadil kubra yi nga xam ne moom la islam di défendre mooy juróom juróom wala am nañu jokkoon benn mu juróom benn mooy wattu am xel wattu diin xifzul diin xifzul nafs xifzul maal xifzul nasl xifzul aql wa xifzul amnil am al mabadi al kubra yi nga xam ne mooy grand principe yi nga xam ne moom mooy maqasid yi islam bëgg a wa bëgg a bëgg a bëgg a bëgg a aar mu ne moo tax charia bi jóg xatum boo ci gis rek mën ko dugal benn ci yéen yi waaye yàlla da wattu wattu diine mu ne moo tax ñu araamal bokkaale wala wattu jëmm nit ki nit ki yàlla da ko yàlla da wormaal moo tax ñu araamal rey nit wattu ma alal moo tax ñu araamal sàcc ak nas bokk yëcca bi ak xiftu nas la wattu askan wi xeet yi moo tax ñu araamal zina waaye xiftul aql aar am xel moo tax ñu araamal naan sàngara wala lépp luy drogue wala lépp luy yàq am xel am ñu ci teg xeftul amnil am sécurité publique bi dañ ko war a dañ ko war a aar moo tax ñu araamal jërimatul xaraaba waxat en trop nga xam ne ñuy addu calpe dañ dog nit ñi loolu tax mu araam boo ko defee dañ laa war a dagg min min xilaaf da ngeen ko jàngee ci alxuraan waaye pour pour nga xam ne ko min al ahdaafil kubra yi nga xam ne objectif principaux yu mag yi islam yi da caa bokk wat am xel am xel parce que ñoom imam Shatibi nga xam ne bind lu bari ci loolu la ci xel maqasid ak ñi demee ni ñoom dañuy wax ne xef xukm charia boo gis rek boo ko boo boo boo boo analysé maqsad ba la ci yàlla jublu lenn ci yi lay wattu day wattu bakkan wala muy wattu alal wala muy wattu wala muy wattu aw xeet wala muy wattu am xel wala muy wattu sécurité publique wala muy wattu diine waaw kon loolu euh, kon demee ne kon am xel ak nite ñaari page lañ pour benn pièce de monnaie ñoo taxaloo foog nit ci day nekk nit pour mu nit ku mat de mooy mooy amum xel kon sëriñ bi nga xam yàlla defal mu nit ko nit ku mat te yàlla na ko yàlla fayal ci mat googu tam wàllu ñu ko foog mu daal laaj mu jëfandikoom xel léppam nag day day doo xam noo koy melalee ndax kéemaane eh, ki da ngay wax rek ne lu coow li bari bi da ngay rek wa yaxluqu ma la taalamuuna Serigne Touba wa yaxluqu ma la taalamuuna Serigne Touba doo ma ne ne eh, zahiral zahiral xadimiya nga ne ku bind zahiral quraniya nga xam ne doon xool alquran Malik ibn Nadir xamul lu muy tudd lu muy tudde mu ne zahiral quraniya def ci ay dirasa yu doy waar Euh, am na ñuy wax zaahiratu ixwaanu safa yu mel noonu mais sëriñ bi kenn mënu ko wax ne zaahira la kooku day xam un peu euh, suñu borom la rek boo ci bëggee noppale sëriñ Tuubaa daal machiatullahi abdul xadim abdullahi wa xadim rasuli yi ci ci ngay loo ndax léppam dafa dafa lënk te foog te ne ko sëñ Moussa waxee rek sëriñ bi cam soo ko fiyaas mu yées ko te moom place boo ko fi teg mu fees ko kon jaani bil aqli wala jaani bil bu ñu jéemee ci gis yoo xam ne ay détails la yoo xam ne dañ ciy romb lu bëri te duñ ko seetlu te xel dëgg la fa jëfandikoo radiyallahu anhu kon bu buñ tënkee loolu rek ñu dellu ci ba ci diggante ak boromam nga xam la moom waaye buy wax ak boromam sax ngeen baal ma personnalité bi da day dafay des du ci seey am na dialectique bi xam ne indi muy xasida bu ngeen di jàngal ba ci mat la bu shifa ñaan ya danañ gis ne dafa am logique interne la logique bi nekk biir wax li muy bëgg bëgg boromam li muy jàkkaarloo moom it mun naa jaay li muy sori sori xel mi dafay day teew ci biir wax danañ ci agsi tuuti ci kanam tuuti xam ngeen ne moom kon ma wax ne kon benn ci dana buñ ubbee loolu lay lay taayal ko mënoon nañu cee gën a détaillé waaye comme waxtu yi dafa xaw a tuuti ñu dellu ci de ñaareelu kon mooy lenn ci liy wane jëfandikoo sëñ bi am xel ci dundam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam muqtada ba nga xam ne daa wax ci ci jëmmam bu tedd ga ak ñu ko waroon kaar ak ñu ko waroon ci war gu na sori ak ñu jàngale ak ñu mu formé ak ñu mu ñu bari ba ci ni mu jéggale ba ci ni mu wootee bi xel a biir parce que bu waree nañ ko sant la yàlla in shakartum la azidannakum li mu am bari na lool waaye bëgg na mu yokku mu ne kon nag nañ ma sant la yàlla wax mu yokku loolu raisonnement logique la boobu ma ci baatu tuwaat ba tey de donc euh, euh, euh, bu ñu wanee lenn ci point yi wane jëfandikoo xelam radiyallahu anhu damay wax ne wékkiirlu ci yàlla wéeru yàlla la njëkk a la gën a def ñëpp nag moom parce que da ngeen sëñ mu taxaw ne bañ ko gisee ba nañ ko noppee gis ci boromam rek nekk moom boromam rek ko ñor mu wékk ko lépp nag waaw daw nit ñi ak li ci loxo nit ñi waaw wajaxtu kulli dil wadudi samadi daa xidmatin lil mustafa muhammadi daal dem nag abduru wa nafon min al rahmani laysa min al bidaani wa sudaani abduru wa nafon min al wahabi laysa min al aadaai wal ahbabi njëriñ ak lor moom yàlla rek ko yor ci la amee nag daal di am liberté leen bal ba ci baat bi indépendance vis-à-vis ci ñëpp nag ak yu bindee fi ndax boo dépendre kenn rek dana la dana la dana la liyee dana la am lu mu la téyee waaye lépp mu du ko jëbbal boroom nga xam ne kenn mënulu ko dara kenn mënu ko lor kenn mënu ko jariñ kenn mënu ko def dara yàlla rek la mu la biir loolu intelligence la ngeen baal ma tawxiid la mooy mooy lépp waaye nag loolu lépp yàlla mooy tax am liberté doo ragalu tubaab ko bëggal dara doo buur doo ragal keneen ñëpp daal ay jàmm yàlla ñoo yow ci am te yàlla def yàlla dindi daal am sa indépendance ba nag ko nañ ne madd yadi li gayri rabbi bi nabi man qaadani fii safari watunu bi xaylulatun bayni wa bayna ma uhib asamani rabbi yamin ma la uhib talal sama loxo ci kenn ku yàlla yàlla mi nga xam ne moom wottu sama tëgg sama sama tukki ak sama teew talal sama loxo ci keneen ku du yàlla di ko ñaan dara loolu damay gàllankoor far te man yàlla musal na ma ci lu may gàllankoor lu ma bëgg naa ko am kon xam na ne indépendance bi ak liberté bi yàlla rek ko mën a jox mu wéeru ci yàlla nag police ñëpp ak ñëpp ak di ngeen waroon koo xam juré ba mu ne ba muy sëñ ci Touba li ko waroon mooy dafa ñëw Touba ngir daw nit ñi ak li ci loxoy nit ñi sama classe ci mag sëñ Madlo yu bari bari ñu yi ñëw ba nuyoo ba dara dugg waaye moom ma ngay daw nit ñi ak li ci loxoy nit ñi radiyallahu taala anhu kon adduru wa naf wa nafu min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani adduru wa nafu min al wahabi laysa min al aadaai wal waaw donc ci loolu nag ci la jege nag boo ko seetloo ci ñaanam ak bindam mu mu muy jëfandikoo ñaan doa te dama dafa garaaw xam ngeen yéen ñi jàng naxaw da ngeen da ngeen wax ne euh, sarfo boobu euh, jumla insha iya la da parce que day palab ya allahu hab ijaal nangam nangam nga xam daanaka bayit woo ci gis rek la ci ëpp ay ñaan la uslub boobu nag day day day lu garaaw ndax yàlla mooy bopp borom lépp fépp ak ñëpp da ngay sàkku ci bu mu def wala mu bañ a def te yàlla dañuy wax ne bu defee mbaam bañ a def maatee la koy signé kenn mënu ci dara nga xam indépendance sëriñ bi ak ak zakat bi ci yël naa tawxiid ba wàllu dina ga waaye xam gi xam ne yàllaay def yàllaay dindi rek mu wéeru ci yàlla lu muy def lu nekk rek bu dee bayit bu dee ñaar boo ko xoolee da nga gis benn bayit ñaan yu bari wala wala wala bu bu di tegaloo li ci ëpp ci bu doon wax ne boo doon def eh, jarab li mu bind mën ngaa wax ne daanaka lu ëpp 50 pour cent wala 60 pour cent ci fi ay ñaan la moo xam ca bisar yi moo xam ca way ca way ya te ñaan yi lu mu xóot xóot lu mu sori sori jëmm ju seey jëmm ji personnalité bi aw shaxsiya al xadimiya aw shaxsaaniya al xadimiya aw daahira al xadimiya du ci feeñ aw daahiratul abd al xadim du ci feeñ maanaam du ci seey lu mu sore sore ci yàlla rek day des danaa ci indi exemple ba mais ba mu demee ci matlabu matlabu shifa bi ngeen di jàng lu bëree bëri da ci am ñaan boo xam ne boo gisee day mel di jàkkaarloog yàlla waaye dafay am dialectique ngeen wàllum ci bari dialectique bu nekk ci ñaan bi li mu koy gëm-gëm li mu koy wóolu wóolu li mu koy doyal doyal day am logique bu nekk ci biir nga xam ne boo ko jàngee ba dem gis wax di ñaan nga xam ne waraa yëpp la ñaanal mu def yëpp euh, wahab lana al-hirsa ala taati wa kuffana al-kasala fi al-awqaati yaa barru yaa latifu yaa muafi yaa man lahu amrul wara yaa shafi anzil shifaaka makaana daai shafa makaana daai wala tuamilna bil ibtilaayi wa anzil an-nafa makaana durri wa anzil al-xayra makaana sharri wa anzil al ilma makaan al jahli wa anzil al juuda makaan al buxli wa anzil al ghina makaan al faqri wa anzil al shukra makaan al ba baytu bi jeex nga xam ne da ngay xool baytu ci ne am na ñaan waaye day indi dara la mbëggul indi contraire ba loolu xam nga discernement la ngeen ngeen baar di seen tamise tamise goo xam ne mbirum xel rek la ku ne xam na ne al ilm contraire mooy al jahl waaw al ghina contraire mooy al faqr al al al al al al dorru contraire mooy euh, mooy al nafa contraire mooy al dorru nga xam ne da koy indi ñaan yàlla wu wattil ko safaan safaane ko waaw ba rek ñaan ko ko nga xam du moom mooy def moom sëriñ yàllaay def loolu am na logique interne bu ñu nekk boo xam ne ndax xam nga xam xàmmee chifa ak daa loolu moom ak ndaanu ko dëmu ci lii ak ak saafara la lii jàngoro jàngoro la loolu moom xel koy xàmmee waaye mu ne kon nag yow gannaaw yaa moom saafara si mu jàngoro ji wecc lu ñu jàngoro ji te teg fa saafara ba noppi def ko anzil uslubu doa muy lu doy waar nga xam yàllaay def dafa dafa yéeme te it wahab lana alxirs gis nga baat bi alxirs ala taati nga xam boo see daanaka bayit woo ci gis rek am na ñaan ci biir jumla inshaiya jumla fi'liya wahab lana alxirs ala taati nag ñu may ñu jafandiku ci topp la boo ko fatal kasala fi awqaati donc day def ñu ñu moytandiku ak tayel ci waxtu yi daal koy daal koy bàkk bàkk nag moom yàlla ci sifaam yu mag yi yaa barru yaa latif yaa muaaf yaa man lahu amrul wara yaa shafi mbiri gaa yi da yaa ko yor fi keneen du fi dara lépp yow yow yi shafi yaay yaay saafara itam da wax nañ ne xasida gi ci bi nga wax bu dee waar la du ma ci dellu si borom xam ko ba tàyyi defe ci njaareen gi ci mujj gi am lu ko li ngeen di wax yéen ulama al usul rek al ibratu bi umumil la bi xususi sabab waaw comme am na contexte bu taxoon mu def ko waaye ñun dañu almaadan am li nas ñu ñu ñu jëriñ ci yàlla na nga wàcce yow yàlla ak euh, ak wér barabu barabu barabu jàngoro wala ton amil na bi lépp ñaan wala ton amil na bi liptilaay bu ñuy napp waaw wa ansilin nafa makaana dur yàlla nga wàcc njëriñ barabu lor ak ñaan la waaye gis nga euh, dichotomie bi wala li wax tibaaq ñaari baat yi nga xam dañoo safaanoo ni mu koy jëfandikoo wa ansilil xayra makaana charr yiw na ñu wàccal aw yiw barabu barabu leneen yàlla nga wàcc xam-xam bu ji réer wa anzilil juuda makaanal muxri ba ci ba ci tabe sax yàlla nga ko wàcceel place nañ wa anzilil ginaa makaanal faqri yow yàlla yaa nga yàlla nga wàccee am koom ak xéewal ci ci barabu ñàkk wa anzilil shukra makaanal kufri ñu lay sant bu may laa weddi te di la gëm ba faw daal dem nag di di di layal di nit ñi nag ne ko yàlla daal nit ñi daal na ngeen musal na ngeen wéral na na ngeen wala tuwaaxisuhum bi kufrihim bi bu leen jàppee seen seen seen bakkaar yu bari yi kon donc léegi mi mi ngi sol rob ngeen baal ma ci wax robu avocat yi défendre nit ñi wala wala wala bi kufrihim bi ndax lu tax fa innahum fa in asawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bi ahad buñ la buñ la buñ la buñ la buñ la buñ la weddee itam buñ la moyee seenu doyee tax rek waaye bu duñ la bokkaale ku ci tiit rek du ci yow te seen yaram yi buñ la mooy te mun la wàññi dara ala bala ek li don fi ñoo xaru ndax dañoo feebal ñu feebal lañ ku ci bopp metti mbaa metti la nga ñàkk naan kafe rek sa bopp metti da daal am problème kon ji péex mi tax rek waaye kenn jiwu la xulubuhum laysa tamilu ila siwaaq waaye da nga xam seeni xol moom bi coow li bëri bëri yëngu beeg tiitare beeg coow li ci yow rek la jëm min huna summa gada tey ak ëllëg yëpp ci jëw lañ waaye nag xam nga nit ki nag bu raggee ba kii rek léegi mu xaw a bajatal léegi mu xaw a tayel léegi mu xaw damay damay gestu dama xaw a kii na bàyyi ba julli jëma a julli nangam tala susul mooy af a tax ndax charge bi ak ak yi moo tax ñuy def sa yooyu ñuy def falaatu nga gis beneen logique falaatu waa xeesu ma laayeen xos waaye nag yow yëpp yow yàlla bu leen jàppee li nga xam du la wàññi dara parce que xéewal yi ak wér gi ak xéewal yi péex meeg lépp boo leen ko joxee du la dara boo ko téyee itam du la jëriñ dara kon nag ma jox leen ko rek wala umu habil ladi laa yanfau yow soxla woo am péex soxla wooy xéewal lépp yaa ko yore yaa ko bind yaa ko moom yaa ko yor te te suñu gars yi soxla nañ ko loolu bëgg nañ ko te soo leen ko joxee la wàññi dara jox leen ko nga xam day mel ni raisonnement raisonnement dafa am ci biir dialectique ci biir wax ji loolu moom dara ci daanu ko nekk fa daana ko yow yàlla nag yooyu mu xalibal xulub yaa ko wax yaa ko def yaa ko melo kon nag xalib xulub ba naa ne loo nga xam day def introduction tiré ci tiré ci résultat loolu moom démarche intellectuelle la boo xam ne euh, lu yéeme la te fii ci ci fi mu naajaa la koy wax dafa wax boromam xam ne du kenn ku ñu waxal ko boromam waaye teewul da nga gis logique logique bi logique bi nekk biir xel gi nekk ci biir wax bi waaw bu defee loolu mën nañ cee wax lu bëree bari bëri ci teg texte bi ndax mën nañ cee commenté lu bëree bëri surtout bayit bu mujj bi fa laatu waa xasun bi maa laa yeen xos wala humu hab illadi laa yeen faw bu leen topp ci li nga xam ne du la wàññi dara yow boo leen joxee xéw yi wéral leen joxeen xam-xam jox leen kabe jox leen xéewal jox leen xam-xam jox leen barke du la wàññi dara soo ko téye itam doo ko jëriñoo yow kenn du la jëriñ yow ndax anta antal xani nag jox leen ko donc kon nga xam ne kon kooku jëfandikoo xel nga foofu ci biir ñaan gi biir munaajaay ak li muy kowe euh, euh, nga xam ne bu ñu sottee tam ci ci dundam bu tedd ga loolu ci lenn ci waxinam la bu ñu ko toppee ba muy jàng alxuraan ak ba muy nekk mag xel mu ko yàlla mayoon dafa yéeme tudd nañ ko fu bare baree bare ba muy jàngal sëriñ Bachir Mbacke radiyallaahu tudd na ko nga xam ni ñu ko doon ni ñu ko doon ni ñu ko doon ñu ko doon tuddee ci mën a mokkal ak ma a fàtte ak gaaw a xam ak demoon na ba sëriñ Bachir tudd na sax ku ñu Balla Maam Touré mu ne mu nga dëkk bi ci am xel ak mën a a wat waaye sëñ bi sëñ Bachir nee na sëñ bi moo ko rawoon ndax sëñ bi du fàtte moom ba mu nee ba mag téere yëpp jàngoon ba muy tuut bu jàngee mat na ba sarax yi ñu defoon ci pegg yi sax da koy mokkal du fàtte waaw di ko di ko fàtte kon xel ma ko ci yàlla mayoon te loolu am xel rek la njàng moom xel koy def moom ak ndaanu kat amu a dee rek waaw kon foofu utiliser dafa am xel am am xel waaw alxuraan ji moom ko mokkal da ngaa a dee moom waaw man di bokk ko defee rek eh, mu ko mokkal lool te daan ko tari nag boole ci di ko bindulu di ko jàng ñu ci nettali bu doy waar rek ci ci yéen bii ndeysaan eh, ne di ko sëñ bi eh, sëñ Abdul Ahad radiyallahu anhu yeesaloo sëñ Mbàkke Madina radiyallahu taala mu noppi nag dafa yu mu dem fa Euh, dégg ngeen ko ba tàyyi ñu ne da ci am néeg boo xam ne euh, euh, sëñ Abdou Lahad leen wax ne sëñ Mourou Moussa la ko doon wax ak sëñ Mbacke Medina néeg bii de nee seen maam bu baax ja jàng na fi junniy kaamil ci la ma ñu boppam junniy kaamil yoo xam ne da ko doon noppaloo da nga xam ne junniy kaamil ci lu fa def daanaka ñeent ñeenteel juróomi at 1900 1907 ba 1912 la fa nekk am ci néeg boo xam ne la mu doon wax ko fay waxtu la doon naa fi mais dafa doon noppaloo bu toogee ba mel ne ma ngay noppal ma ngay tare loolu ba mu ko wékkee mën na junniy kaamil ci lu mat juróomi loolu ñett loolu yéeme na te alxuraan moom am xel koy tari moom alxuraan moom lu ñu inventé lu ñu def dara da nga koy wax rek kama kama unzil nga xam ne kon loolu xel mu xel mu xel mu extraordinaire la ci la ci la ci yore mu kéemaane euh, li mu daan mokkal ak li mu daan jàpp te du fàtte te du fàtte lu mu xas gis benn yoon ba mu dégg ko benn yoon rek jeex na du du du fàtte ci alxuraan ji ak jëree xam-xam yi ba dem ba bu muy jàngaleel Mamour Anta Sall ci daara ji itam demoon nañ ba xam ne sëñ ba Mbacké ñaan ñu bari ci eh, dongo yi dañ daan préféré mu jàngal leen ndax am njàng gën a gaaw moo gën a yomb moo ngay gën a jàpp te boobu Mamour Anta Sall mi nga xam ne ci kéemaane la mi ngi fi waaye bu ko daan aw léeg-léeg ci yenn jàngale yi ñu bari ci nekk daara ji dañ daan bëgg sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi jàngal leen eh, eh, ci xam-xamam ci ak xamam ak ko xam nit ñi seen seen sulukiyaat seen nafsiyaat kenn ku nekk sa sa sa dégg sa dégg fiñ ci ak ci toll ak ak ak ni nga mën a xamee ak li la mën a gàllankoor lépp da ko xam ci dimbum bi tedd gi zahir boo ko xoolee eh, da ngay wax ne fi bu dañuy wax ne ëpp ci li mu daan sol yu weex la li ëpp ci la te ñun fi ñu nekk dafa tàng te dira sa études yu moderne yëpp wane nañ ne couleur bu weex day wàññi tàngoor xam loolu moom bu ngeen seetloo fi ne Europe yi nga xam daana gëm ñu dara sax été ñu ëpp ñu weex la ñu sol parce que dañuy wax day atténuer tàngoor bi tàngoor jant nga xam ne loolu bu mu dëkk fu tàng boole ci li muy sol day day yaatu day àmbal sëriñ bi du sol du sol lu xat loolu lu xel la parce que dëkk bi dëkk bi dafa tàng boo solee lu xat mu mu gêné la mën na yokk tàngoor bi du ko jàmbat mukk ndax yàllaa ko def du tàngoor waaye le fait mu sol lu weex rek di leen nasaan bi nga xam ne mooy nekk ci weex di message di ak naqaa ak a nangam nangam waaye sur le plan climat bi rek ni mu ko ci adopté li muy sol dugg dugg ci suuf di lëfër lëfër yi loolu xëy na sunna la ci topp ndax ñoom ñoom ñi ci sunna duñ sol lu gudd waaw loolu moom waaye nag mën nga cee dégg ni itam du luy tilim ndax da day yem du buubu suuf te day yaatu day yaatu kon day am ngelaw day day ample nga xam boobu côté rek côté bu sew la boobu ñu ko seetlu te loolu ko mën ko cee dégg xañ ne wax ko bind ko waaye boo gis ne lu weex lay sol lu yaatu lay doon te lu gàtt lay doon da ci tubaab yi nga xam ne sax wolof dañuy wax léeg-léeg bu ñu bu ñu ko siilu solee set ñaan ko ko tubaab la mais tubaab yi seetlu suñu tubaab yi yéemoon ak ak nga xam ne ci li mu daan sol ak fi muy nekk ni muy laabee ni muy setee ak ak li muy jëfandikoo kaas yeeg attaay yeeg war nga xam nañu ko bind ci lenn seen rapport yi ne Cheikh Ahmadou Bamba est d'une propriété impeccable xam nga tubaab xam nga boobu jëfi ëpp te comme ñoo xam ne dañoo xeet daanaka xaw ñoo ñu bëgg a jege bu dee sëñ bi doon seeram noonu ci saa dañu bëgg seet bu ñu nee bay bay bind di seede ne eh, kii daal ni mu seete jaaxal na leen te tubaab dañoo wax ne Eh, ku leen xam dafa wax ne seenu caay-caay dafa àgg ci bu ñuy meral mbir dañ koy meral objectivement na mel maanaam dañuy am mawdu waaye ke la ñuy wax waaye caay-caay gi nag mooy bu ñu koy firi bu ñu koy firi la dugal caay-caay gi maanaam ñu joxe ci exemple bu palpable bu ñu làmb ci Touba ñu ne eh, dafa am Touba bu bii ne sëriñ bi bu muy sos Touba dafa ñëw fekk digg Sénégal nga xam jege na Kajoor jege na Njaambur jege na Bawol jege na Jolof jege na Saalum fu ne am na fay nit ñëw ci digg àllum ñaraxlaan àll bi mu sam fii Touba pour bu créer arme bu ko tubaab yi song mu tasaare arme bi ci dëkk ndax am na am partenaire yu nekk Kajoor am na partenaire yu nekk Njaambur am na ñu nekk Saalum am na ñu nekk Jolof mu def seen diggante pour bu ko defee bu leen di entraîné bu ko tubaab bi bëggee song mu tasaare ñoom ci biir xam nga bu caay-caay la pour pour waree ne digg Sénégal la dëgg la loolu moom c'est un fait Touba mooy digg Sénégal waaye ndax sëñ bi defee nekk pour dajale ngànnaay ndax sëñ bi defee nekk pour dajale arme pour ndax sëñ bi dafa bëgg ëllëg bu ñu ko attaqué euh, militaire yi loolu ak caay-caay la waaw ah, kon bu ñu demee nag ba d'accord ci ne kilifa gu mag ci ñoom ne sëriñ bi dafa nekk d'une propriété impeccable loolu beneen mbir la ah, loolu bokk na ci daanukat yi ci mën a wax itam demoon na ba mu jigi sax loolu nag wàllu daanukat gi la moom eh, yére yooyu ci lay ci lay yónnee waa kër gi dafa mujj wax ne bu xatee waxat ku ci ku ci soxla dara wax ko yére yi loolu nag moom xam nga xam nga lu mu xel moom nga xam boo ko defaree dara ci kër ga ci soxna yi boo la nga soxla ci sëñ bi te mënoo ci na xat na da koy wax yére yére yi ñu koy wax rek bu ñëwee moom dana la fajal aji yooyu waaw marhaban marhaban bikum marhaban salaamaaleykum marhaban donc euh, kon loolu euh, jëfandikoo xel la ci njàng ma ak ba muy jàngale ak ci jëmmum bi tedd ga ak ci jëmmum jëmmum ju tedd ja ak ca njàngaleem ma al ixwa min masr tabaan marhaban bikum marhaban marhaban masr barakallahu fik fadlu marhaban barakallahu dara marhaban eh, kon eh, ba ci li wax naa ko yëre yu weex yam daan sol ci gàttal ak ak yëre yu gàtt yam daan sol ak yëre yu yaatu yam daan sol ak set gam daan set fa daan nekk boo demee ci loolu ca ba muy jàngal nga xam ne daan fekk téere ay téere mu koy jàng eh, téere yu la wal laxtari yu saani nangam nangam samax samax max yi nangam nag téere yi ñu daan jàng da koy jàng ñu koy tëralal waaye bi mu demee ba ba ba ba ba ba ubbeeku bu bari itam mu jël ay téere di ko talxiis di ko nagam loolu intelligence la fekk ku bindub téeréem Abdurahmaan Ahmad Axdari nasr la mu ñëw nagam ko def koy waaye ngir ñu mën ko gaaw mokkal loolu pédagogie la boo xam ne xel a koy def parce que waaye moom ku jàngut doo ko mën te it ku déggut li ngay li ngay bind mën ko talxiis te te dégg moom am xel li nga koy defee wala ay imaamul Ghazali Bidaayatul Hidaaya am tudd Nulaynu Sudur wala Munawwiru Sudur wala imaam Dalhaaji da nga da nga ca Masaalikul Jinaan ak ca eh, Nahju Qadaa'il Haaj nga xam ne ay téere lay fekk ñu ne ko nasr mu nazmu ko waaw loola xam xel la xam-xam la te da koy def de façon académique boo xam ne dirasat acadé dirasat académique yi yi xew du ko du ko weddi dirasat académique du ko weddi ndax da koy da koy tudd defal ko plan tudd leen tudd référence waaw kon kooku am xel la jëfandikoo foofu waaw eh, ba noppi tudd ñu tudd ñoom bind bu ci dolli mu tudd lañ ci dolli bu ko bu ci dul d'accord te la ci am njariñ lay wax la ci am njariñ lay tudd boole ci nag nga doon tey yokk nag la nga xam ne moo ko bindal boppam moom ay waaye boppam la ay taalif boppam ay munajaatam ay matxon nabi salaatu ala nabi boo ko teg nar ma ñoom na def téere jëlee ñoom bidaaya ci la hidaaya wax ci xabaar téere yooyu nga xam ne ñoom dirasat académie yi la fekkee nit ñi jàng mu xam ne ñun fi mujtamain dañoo nuxibu chaara fa yaani موضوع الدرس هو البعد العقلي والإنساني في حياة الشيخ أحمد الخديم أود أن آتي ببعض الأمثلة حول حياة الشيخ كيف استعمل العقل في نشر العلم ونشر الثقافة وكيف كان يدرس بأساليب علمية أكاديمية سنلخص لكم الكلام إن شاء الله في نهاية الجلسة بارك الله فيكم kon ñu wax ne rek loolu mooy téere yi nga xam ne ko fekk ab téere nga dégg ko résumé ko daf koy way bidayatul bidayatul hidaaya li imaam al-Ghazali mu tudd ko mu layyimu sudur tudd ko mu nawiru sudur yokk ca wàññi ca dem ba téere yooyu yëpp néew ci biir di nga naqare ba mu ci def laakin dama kutubuhum li tooli zahida anha jullu haadal ji parce que téere yi dañoo gudd bari coow la bari te te bu koy talxiis débat ya ak ak ak ak eh, waxi école ya du ca sori day wax laa am njëriñ rek loolu danaa ci ñëw ak yéen wax sëñ bi ni muy jëfandikoo ak histoire waaye bu talxis mbir tam débat débat intellectuel yi nga xam ne moom daanaka du la amal njëriñ di la jël waxtu di ca dugg xam na ko loolu maîtrise na ko waaye day wax day jël la am njëriñ rek moo xam la ko jàll jàll ci leneen eh, mu bind mbind boppam nag boo xam ne moom mbindi boppam la moo ko taalif ci way yeeg xekkam yeeg nasra boole ci ak ak ay ay ay ay wasaaya yu mu def def ay aslèche ay rudur yu mu def ci ay maaya ak albasmala ak yooyu ngeen xam yëpp mu def ko bi lisaanin arabiyyin mubiin boo xam ne arab la boo xam ne doo xam fu mu ko jàngee la kilifa gu baax waxoon rek ne dafa laaj sëñ Mouhamadou Dem radiyallahu anhu am baat yi mu ko doon laaj ci muqaddimatul am daa baatam yu kéemaane yooyu mu ne ko sëñ fu ma xamee baat yi daal dama jaaxal ndax mosu génn ci àll bi jàngi boobu buñ jit yi bëriwul fu ma xamee baat yi mu ko eh doom sëriñ bi jàngiwul fii waaw <laughs> ah, sëñ ah, loolu mooy li wér jàngiwul ah, ba sax ba sori lim quantité bi ak qualité bi ak temps bi mu xam ne kooku jàngiwul fii bu ne pare wax ne dafa nekk ci li li ngeen di tuddee ci naqdi ñu ne sahlil sahlil mumtania mbind sëñ bi boo gisee ci kaw dafa yomb waaye boo ne woon da koy topp topp topp toppandoo nag foofu ngay yomb waaye boo ko bëggoon def ak ak bi ak quantité bi ci soixante quinze ans yoo xam ne liggéeyutoon bind rek ñu ngi woon loxo man ngaa wax ne 32 ans yëpp ci ay loxo lañ 1895 ba 1927 ñu ci loxoy tubaab bi lu ko jiitu ci génnee at nekkoon ci membre antecédé nga xam sëñ Bachir Bakary ne kaa la laa du yëkk du tëral topp ci gannaaw maamoor rek donc diggante bu tuuti ngay mën a wax rek kon gannaaw maamoor la fi xaw a kilé yàggu dara mu tàbb ci loxo tubaab yi te toppatoo kër gaa toppatoo njaboot gaal njàngale maag wax lépp rek jiite waxtu julli ak njàngum alxuraan ma teewul muy bind teewul muy bind quantité bu toll nii bi mu bind waaw mu doy waar loolu defar ñu baree baree baree bare moo tax moo tax moo tax borom xam-xam ba ne ko yaqumu layaali rab bi rabbihi loolu nag maa ko ci maa ji def tasarruf ca bayti ba parce que dama dama xamutoon lu ko lu ko àggale ma ne wayan sura ilmal xaqi daaman li diinihi loolu maa ko ci tasarruf ndax dama ma kulatul bayti ba ma ma ne kon kon nag maa ngi maa ngi dab daaxee dara rek àggale ko bayti waaw bu noppi mu boole ci intelligence boo xam ne ngeen bal ma ci baat bi li mu bind li mu bëri bëri lépp mu sàkku yàlla def na ko jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga xam ne buy natural ilm parce que bind en général da ci bëri loo xam ne natural ilm la rek da ngay fekk ab xam-xam nga nga bëgg ko transférer support bi ngay utiliser mooy bind munoon loola mu ci wax ak la mu julli ci yonte bi ak la mu julli ak la ko tagg ak la mu wax ci lu baax la mu wax ci ay wasaaya ak xikam yàlla defal ko lépp mu jaa ak jàmm yàlla wajal xuruuf yi kullaha ibada yaa man lahu al ibadu wal ibada xam ne bu lay wax ne al maaya xam nga buy masalatul maaya mu ciy tontu loolu masala fiqhi la wala masala xilaafi la waaye day ñaan la mu ciy bind sa nekk jàmm yàlla nga xam ne daraan du neen te jaamu yàlla gi yàlla ko ci defal ab yool dencal ko ko kon xam na li muy wut xamu ndax leen wax waxoon naa leen déet lu mu sore sore ci suñ borom rek da ciy booleb xel da ciy sàkk lu baax li am ci lu baax lu mu bari bari rek mu ngi ci sàkk ndolle waaw ndax bind mi lépp dafa sàkk ak jaamu yàlla te am na ci loo xam ne mën nañoo wax rek ne ay instrument la yu muy utiliser pour jàngale pour saare xam-xam pour tasaare xalaat waaye teewul day ñaan yàlla defal ko lépp jaamu yàlla mu koy tudd nu bëree bëri nag bindam yooyu tawaalif kitaabaat xoroof muallafaat dégg nga nuus man man ko tuddee nusuus xadimiya aw xadimiyaat lu ne mën xam ne am na ci ay xasaayid am na ci lu dul xasaayid danaa ci ñëw ci mbiru xasida gi lu ci aju beneen point bi nga mën koo indi mooy plan directeur bi ñu def Touba ci ma demal foo sëy loolu moom amul dara fi daanu ko ne am naa dëkk bu may sañ bëgg naa mu mel nii ndox mi fi lay mel bëgg naa mu yaatu jumaa ji tey jàngalekat yi loolu moom am xel rek la moom <laughs> ngeen baal ma ak mashro ak istibaqa zaman dañuy wax anticipation ndax ba mu koy def ci mbaarum dóor nekk mbaarum ngeer di di di ñaan yàlla may ko ndox yi daw wa nu ko waxee bi may jaarin waaw di wax ñu tabax tabax xam nga waxaan di wax nañ fa war a jàngi xam-xam dañ fa war a jàmm yàlla dañ fa war a wéttale yàlla loola moom day li ngeen di wax plan directeur bu ñuy bu ab dëkk loolu mu leen mu leen njëkk a def mbedd yaag ndox yaag fa courant ba jaar ak fa ñuy jàngaleeg fa ñuy fajeeg yépp mu doxee ko ci biir Euh, am xel la parce que plan direct plan moom xel a koy def waaw te ba mu koy def boobu yàgg te boobu moom dong la boobu ci mbaarum dóor dóor fii ci kër Sëñ Saliou màggalu Tuubaa gi li muy rëy rëy mu ne nañ ko ci sant la yàlla ci lañ mos a gis mu sàkku ndimbal lañ ko wax li muy tàbbi ci loxo tubaab yi lépp fanweeri ak ñaar ak lu ko jiitu ak li muy li muy fi ñu ko jaarale fépp te ne nettali na ko ne néew nu um wax nañ nettali na ko maam Thierno ba mu gisee moom ca Ndar ne ko Ibrahima war ngeen sant yàlla ndax fi ñuy dem te dellu si dem nañ ba dellu si noon bi lu nu jéem na ko waaye néewuñu o kenn ci yéen du fa jaar ëllëg jurus waaye teewul lam ci am ci lu baax lépp nag dafa wax koo xam ne sa mbég sama mbég na ko sant la yàlla ci bis sant la yàlla tey la in shakartum la azidannakum kon lam ci am li muy bari bari bari mu ngi bëgg mu yokk muy lu doy waar ndax loolu sàkku ci yàlla aw yiw la xam ne moom léppam ab yiw la yàlla fay na ko lu dul jeex te yàlla xamal ne ko ne dat bi bu sax bu ak li mu amoon day day yokk di fulandi waaye teewul dafa dafa sàkku ci ñu ko ci sant la yàlla bu ko defee sant gi day day wéy di jàll rek muy muy muy muy lu xel mën a nangu parce wax ne dafa bëgg lu dafa baax te bëgg lu baax ba lu mu ci am rek mu nga ñaan mu yokk radiyallahu taala beneen bi ci gàttal loolu mën na ci wax lu bëree bëri waaye damay wax ne beneen bi euh, mooy ni muy jëfandikoo ak histoire de l'islam maanaam sëñ bi wax garam ci islam histoire islam ak bu koy tudd yam cay tudd ak na mu koy tuddee dama ciy indi ay benn benn exemple rek du euh, dugg ci débat philosophique yi xewoon diggante euh, nu mu tuddati chia euh, des ak xawaarij ak dugg fi génn feeg dégg nga mu'tazila ak taalib ñu gaa yooyu yëpp yooyu du day wax la am njëriñ rek ci ci dundu yonent bi sallallahu ak ci dundu saxaaba yi ku ci nekk mu indi sa particularité ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci yonent bi sallallahu sax vie privée boo xam ne da nga dégg ñu ci dugg du ci du ci sori wa nabiyu wa rasulu wal xalil wal xabibu wal imaamu wa dalil baraahu al badiu min gayri jamal wa saanahu al quddusu an gayri kamal waaye détails yi ci biir rek def na feek def na feek def na laa yooyu du fi dugg xam na ko waaye mën ngaa wax ne amuñu njëriñ lu teew dañ ko def rek pour euh, féexal suñuy xol ak dolli xam dellu ko xam ko waaye jëriñ la bëriwul bu ko defee euh, bu tuddee yonente bi aleyhi salaam sifaatam alkaamila yooyu nga xam ne huwa nabiyu wal rasulu wal xalil wal xabibu wal imaamu wa dalil daal ne wax ne gaa yu baax yépp nag li ñu am ci lu baax ci moom lañu ko jëlee xul qadamaahu fawqa kulli raqaba min hustaara al xurru kulla man qaba lahu siyaadatu lahu lbaraa'a yowma alasu wa lahu shafaa idan huwa nabiyu wal rasulu wal xalil wa huwa al xabibu wal imaamu wa dalil ba noppi nag nag sama lépp da koy magal maanaam histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ma ma ci nekk di di ci lii di bàyyi lee yu bajjilu kulli kullakal yawma ma gadin wa insha rabbi la ara dahra daawani aw la ara dahra daawani sama lépp rek day màggal lépp yonent bi sallallahu alayhi ne bëggul dara lu lu baax yonent bi raw ko waaye du fa nekk dugg ci détaillé nag waaye bu tudd yonent bi tudd saxaaba yi surtout la ci lu muy tudd te kenn ku nekk day tudd sa sa sa sa alaaqa xaas ak yonent bi wala wala la nga ci am yow rek yeneen détails yi du ci dugg moom li mu wax bëgg naa leer na am déet misaal bu buy wax xulafaa rachidin masalan bu abu bu àgg bu àgg ci Aboubacar Aboubacar nag yar Omar Ali ak Ousmane radiyallahu anhum Aboubacar sadiq sidqi wal wafa rafiqu nabiyi Mustafa al gaara am baw rafiqu nabiyi Mustafa al gaara daal ne waasa nabiya bi amwaalin wa ankaxahu bintan walam yaaruhu shakkun aw inkaaru loolu Aboubacar rek ci wéet moo gàddaay nag moom mu nekk moom ca gaar ba moo ko jox doomam dimbali ko ci àllam xëy na am na ñeneen ñu ko dimbali ci àll mais boolewuñ ci yeneen éléments yi mooy ñu ko seen doom ànd ñoo ne moom ca gàddaay ga nekkoon ca ba jànde ko ca matt sax gis ngeen daanaka loolu dugg ci moom lu bari ndax xunti ma dafa am pax mu fa nekk am abubakar teg ci tànkam nekk jaana ca nekk jaande matt ko ba mu tànk ba mu ñaq ñaq ñaq métti la ba loolu topp na ko ba abubakar di génn àdduna lu bàyyiwu waaye loolu sëñ bi ci ëpp li ci dugg dafa alxaara am ba u rek la xew ci pax ba moo xunti ma moo ko xam waaw nga xam dëkk bi ci ci ci ci tarki daa ne waasor nabiya bi am waali wa an kaxahu da ko taamim moom daal defal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci àllam wa an kaxahu bintan da mooy Aïcha radiyallahu anha ngeen xam ko walam yaaru chakkun awin kaaru mos ci sikk sàkk ci mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam dam nga xam ne yeneen qualité yi Abubakar bana am itam du ci dugg loolu nga xam kenn fépp ku ci yonent bi la la tuddal ba àggee ci Omar da ngay dégg Abu Hafs nil Faaruq charwaahu naadirun Abu Hafs tudd Sayyida Hafsa nga xam ne borom soxna yonent bi kon ale kooku bot kooku lu lu digale yonent bi la bihi taz i'taz diidul Mustafa it yuzaziu personnalité Omar ak ak ak ak fermeté am ak ak yooyu la ci tudd yam bokk ak saxaaba yi ak yéen ñi nga xam ne am nay débat du ci dugg lu dul alxaqu maa Omar am na fenn fu mu ko wax waaye à part loolu détail bi du ci dugg ñu Sidna Usmaan da nga gis moom tam ni ko la ko li ko particularisé rek afi sax bi man baax na afaana dal xayaa lahu nuuru summa nuuru ni amal mu baw waaw moom borom kersa ga borom dafa am leer ga amaat leer ga zone nuuree nii euh, Umu Kaltuum Ruqayya am takk na kii mu faatu mu takk keneen ñoom moom rek moo ko ci def ci saxaaba yi yor ñaar doomu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent daan am kersa ci moom nga xam loolu loolu loolu lay tudd ci euh, Usmaan ibn Affaan Ali ibn Abi Talib ak xam-xam baak njàmbaar ga ak lu la ci ëpp loolu la ko particulier lay tudd saxaaba yi ba ci am xam-xam al abaadil arbaa kenn ëpp leen xam-xam ali am na xam-xam waaye abadillah arba ibnu omar ibnu abbas yooyu ngeen xam ay borom xam-xam nañu rëy rëy kon bokk nañu xam-xam mais da ngay dégg mu ne abu sibti al muxtaari boobu ibnu ammihi aliyun ala faxtira ni amal mu jarra donc abu sibti al muxtaari mooy bàyyi ñaari sët ya xasan ak xuseyn faate ba leen jur ngeen xam ko ma radiallahu anhu anha boobu ibnu ammihi moom rek moo moo ci nekk loolu waaw ah, moo ko boole bu nekk ibnu amam nga xam ne omar abu abu bakar li ñuy baax baax bi ñu ibnu am yonte xëy na bokk nañ bokk sori ci Quraysh mais Ali lu gën a jege ndax abu abu Talib ak Abdullah ni ñu bokkee loolu xam ngeen ko beneen duñ ci gën a kii beneen beneen élément bi mooy mu xajjale al uruba wal islam muy muy muy diggante bu sew moom xam ngeen lu bari bari ci borom xam-xam yi dañuy wax ni ah shérif la ñu bokk shérif yaa ngi nii macha allah wax ni shérif la waaye li mu koy doon doon te xam ko day mel ne da koy sakkanal du ko tudd nga xam yeneen lay wax ci moom waaye du wax ak shérifam ak yonent bi sa maam ak wala wala moo meññeek shérif la ñaari yoon te bu ko neexoon wax ko ndax mooy am ndax borom xam-xam saxal ba la mu ci waxoon xaala ibnu cheikhihi alladi la yahmadu fi nafsihi si wasmihi muhammad moom li muy sant li sant ci rek mooy li mu tudd muhammad kat waaye nag la mooy maamam ak mooy maamam yooyu xam na ko waaye du ci dugg day mel ne da koy sakkanal du ko sori na sax fuy ko waaye waaye du ko du ko tudd sax daanaka te bu nga gisee boroom xam-xam yu mag yi Cheikh Amadou Bachir ma Mad Lamine Diop Dagana sëñ Moussa Abdourahmane Lo sëñ Mbacke Bousso ñëpp xam nañ ne moom shérif la ci wàllu ndey ak ci wàllu baay sëñ Mad Lamine nee na bu ñu ko bindoon sax waxuñu ko waaye comportement bi rek ak jikkoom war nañ ne shérif si ab shérif rek ko mën a am xel ma itam ngeen baal ma tax waxtu waa ngi bëgg a numtuweeti ca yarin wa yarinu xam-xam wa ñoom doon jàngal xam-xam loolu mooy ñu doon jàngal wàllu xam-xam nga xam ne ca Mbàkke Kajoor ja ba mu defee déclaration bu rëy ba ca la yëf yi jaxasoo la sëñ Bachir Mbacke melal ne ba mu waxee ne chafahani euh, rabbi yi euh, euh, nu mu ko waxeete rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat mu ne ba mu ko waxee dalika al i'laad al kabir ca daara ja dahaba al jullu wa baqiya al qullu lu sëñ Bachir mel mu ne ba mu ko waxee gars yi dañ ne kii li muy wax xamuñu ko addaban yaani chafahani rasul sala kayfa yuchafihu rasul ma maana hada al kalam wa lidalik fi tilkum ad daar dahaba al jullu wa baqiya al qullu loolu li ëpp yi dañoo dem ñu ñu xamuñu jàngal lañ xam xaala diw xaala diw nanga waaye nag yonent bi nee na moom muy daal mm, la ñuy jàngi kon nag bu si daal waaw waaye ñooñu demoon ñu ci bari ñu jëriñ dellu si waat waaw loolu duñ duñ ko sori donc am na ñoo xam ne kon dañ doon jàngal ci xam-xam am na ñoo xam ne dañ doon jàngal ci ay jëf da leen ci daal doon formé mooy mooy mooy daare tarbiya loo ko indi waaw xam na ñoo xam ne seen xel ak seen ayub nafsiya am njàng du ko du ko saafara mu di leen taxanloo ñu mu di leen rootloo ñu mu di leen bayloo ñu mu di leen feteñloo ñu mu ñu leen sàkketloo ñu mu di leen daajloo ibrak ñu mu di leen la nga xam ne moo lay defar mu euh, orienté la ca di la ca la ca rafet di la ca raxas di la ca defar di la ca yéegal ba nga mujj ne léegi ñu mel ni ñëpp rek ah, loolu mbirum xel la waaye mbirum bit ma lay wax ne link xel mi ak baatin dafa dafa link te boole ci ndax ndax du neex a dañuy ànd ndax ki muy xam ne kii tax na ko mën a kii moo ko mën a defar ndax mënut a jàng dara wala kii yett ak yett gayeta ko mën a defar wala kii sot wante xalimaa ko mën a defar wala kii eh, yalwaane yalwaane tax mu wàcc di moom ak rëy ndax rëy na rëy goo xam ne yalwaane a safar safar doomi xam ne soo ko masànne ko noo tudd sax mu mer waaye boo ko yalwaan loo loola ko wàcc na ci kilifa gu mag bu am fu dem yalwaan yére ne ko ay ko jalasel yow ko yalwaan alaaj yi ko ci biir mu dara jël sotti sotti ci ñam sotti ci yére yi leen yéen di sarax leen yëriñ ngeen di sarax nga xam ne kon seenum njàngale eh, dafa dafa kéemaane njàngaleem sëñ bi donc xàmmee loolu ci nit ki nag xam histoire am xam physionomie am xam ay mbokkam xam li mën a li koy defar loolu xel a koy wane donte bàtti nañ ci biir waaye xel a ngi ci itam ndax am na ñoo xam ne benn dañuy wax ne benn médecin bu juróon benn garab fukki nit ñëw ku ñëw mu bindal garab bi juróom-ñett yi bu sàggeen dañuy faatu ndax bokkuñu bokkuñu histoire bokkuñu poids bokkuñu tension bokkuñu lu leen dal bokkuñu physionomie kenn ku nekk bokkuñu antécédent yoo xam ne mooy mooy influence ñoom kon kenn ku nekk dañuy wax ne téeméeri xar wenn yett leen di sàmm waaye téeméeri nit téeméeri téeméeri yett leen di sàmm kenn ku nekk si kenn ku nekk aalam nga bi bi ak mali kenn ku nekk sa monde bopp nga ku ne nag nam lay defere rek moom moo ko xam loolu tam yiis boobu xel dëgg koy def da nga xam psychologie nit ki xam ay prédisposition xam li mu attan xam li koy defar xam li ko gàllankoor nga mën seet na koy raxase mooy li ñuy wax taxliya taxliya tasgiya tarbiya tasfiya seen baat yooyu ñu jëfandikoo radiallahu anhu ajmain eh, beneen bi tam mooy mu defar kenn ci ñooñu soit mu defar la ci jàng mi wala mu defar la ci liggéey bi ba nga mel ni mu amee ci yow yaakaar mu responsabiliser la tefal la mboola mboola ci teraanga liñ tudd seexal te teraanga ji du caa génnoon da ngay dem pour nekk buur déedéet la ko def pour nga liggéey dalaa defar ba nga ba nga ba nga ba nga defaru ba mën a defaree demal defare ji nag am na fu waxee sax ne dama defoon ne ceex gi ay dàll la dañ koy defee dàll ba ko joxee dañ ko sol dem waaye duñ ko def duñ ko defal ñu wuti bëgg nekk kooku critique bu sëñ bi def la bett naa leen ñu bett ma mu bett leen waaye dinaa leen bettal bett naa leen ñu bett ma ma bett leen waaye dinaa leen bettal kon dafa defoon ne kon li muy wax taxmidul masuliya maqruna bil karama dalay jox responsabilisé la boole ji teraanga pour nga dem dem defere ji te cheikh am na ñu firil ne eh, mooy cheikh lu lépp lu bon te sax ci lépp lu baax ñu bari nag dañuy dañuy jaxase ak cheikh ak tofal mbooloo te bokkul am nañu cheikh te amuñu mbooloo am nañu am mbooloo te alhamdulilah rabbil alamin te dégg ngeen fii si Abdou Lahad Mbaax ma ne nee na li muy def ci nit ñu topp ko julli ñaar rakk ak gën a jafe te bu ko deful ci ëkk ñu ko wër kon kooku du problème ci moom waaye nag mooy seet ki xam ne mérité na ko mu defal ko responsabiliser la euh, jox la jox la jox la euh, mbooloo ngay war a dem di defaree pour message bi di jàll parce que nit ki day bëgg xeetu bokk ci moom léegi bu fekkee ne ab jàmbur ñëw di la waar na impact ba muy am du bokk ak bu la ko sa mbokk di waar bu ko moo tax mu jël mbokk yi di leen teral di leen joxe teranga pour ñu tasaare li muy jàngale bu ko defee kooku nag bu ñëwee ci comportement ci ay waxam ci ay jëfam ci na muy lekkee na muy doxee na muy waxee na solo lépp ay ay message la lépp ay message la muy fexe ba itam message boobu boo ko yor ak ñi nga àndal ngeen man seen bopp donc muy indépendance économique da ngeen fexe ba mënal seen bopp ndax ku la mënal sañal la te yàlla nañu kala war a sañal nga xam ne principe mabda la ci gestion ilmu tasir la ñuy wax science de la gestion bii xew léegi loolu kenn dañuy wax ne sax ki ki paye commande qui paye commande yow mi nga xam ne yaay fay société boo fi gis wala compagnie wala entreprise boo fi gis ñu def koy action ka ca ëppale la mu bëgg la ñu defal bu dañu la wax dafa am une voix prépondérante parce que moo ci ëppale xaalis moo tax sëñ bi ne ne ngeen fexe ba mënal seet boobu ndax ku la mën a sañal la yàlla nañ ko la war a sañal ndax ki ki paye commande loolu moom gestionnaire yi xam mbir moom ku ko investir ci ñu la koy gérer loo bëgg moo fay am nañu fexe ba mënal suñu bopp xaga charxa saameex suñu indépendance ñu am ko jumaa jooyu ci njaareen ak jumaa yi murid def yëpp suñu indépendance économique moo tax ñu man ko bu ci loxo kenn duggoon rek duñu mën suñu bopp danañ ko di ngeen fi wax nangam ngeen fi wax nangam boo xam ne yi fi xaw naqar sax waaye am njàngale mu rëy la ci Cheikh Abdoul Ahad muy def yokkam yu rëy yi ci dëkk bi muy yokk jumaa ji daaray kaamil kër sëñ Touba gi université bi dafa am benn ambassadeur bu nekkoon fii dakaar mën nañ ko tudd sax rahmatullah moom moom te wàcc na liggéey eh, ñoom xam nga ni dañ daan gisee Touba rek yi fi tasawu fi duñ ci sawar xam nga sëñ bi def na def na juróom juróom fukki at juróom-ñaar Dakar mu sëñu Touba bi mu ba mu jeexal nag mu ne daal euh, Touba daal di ma koy dégg danaa ko war a seet daal xam naa fekk li may bëgg a wax nii ki ma ko nekk du Sénégalais sax am malien la boo xam ne daf doon daf doon jëfandikoo daf doon liggéey ak ambassadeur bu nekkoon mudiru maktab mudiru iqlimi li maktabati rabbil alamin islami ñu ko Abdoul Wahab Dukré moom danoon xaytu ambassadeur bu fu ma sax dem ñuy ànd mu ne ambassadeur li may bëgg a wax mu ne bi ñu ñëwee mu ne ko daal dama bëgg dem Touba ndax su ma demee dañu ma recevoir mu ne ko ah dañu la recevoir kay ñoo ne kay sëñ bi nekkal len mu ne ko wutal ma rendez-vous len mu daal téléphoné fii Touba kër sëñ bi boo saa bu bëggee kër yàlla kër yonent bi ku bëgg rek mën nga ñëw ñëw sëñ bi am ñu leen boole ci gàttal ñu ñëw ci jumaa ji gis yokk bi gis daara kaamil gis kër sëñ Touba gi gis université bi gis Aynu Rahmati boobu ñu koy defar bi ñu nag bay dem ba ñu nag nee na sëriñ bi ne ko noo gisee dëkk bi nag mu ne dama am ñaari yëg-yëg yëg-yëg bu njëkk bi mooy mbetteel ñaareelu yëg-yëg bi mooy kersa mu ne ko bi mooy maa ngi door ñëw Touba daa gis jumaa ji ak photo yeeg waaye yaakaaru mu ne àgg na fii te li ma ci gën a yéem mooy damaa gis alplaat bi trop ko léegi ñu def ci ne 1963 la pare woon ba sax mag Mouhamadul Fadal ubbi woon ko yéemoo ci loolu nga koy yokk te waaw mu ne ko loolu mooy yëg-yëg bi te mosuma xalaat ni du ma jàgg na fii te bu ma ko xoolee rek mu dina mën a war la may fàttali loolu mooy yëg-yëg bi gis naa itam yëmoo ci yaa ngi koy yokk yaa ngi def université yaa ngi tabax Sëriñ Tuubaa yaa ngi def daari kaamil yaa ngi def aynu rahmat loolu mooy yëg-yëg bi ñu mbetteel mi ñaareelu yëg-yëg bi mooy kersa kersa gi mooy ñun Arabie Saoudite ñu yàlla may ci alal te suñu benn dërëm mu seedu ah yaa ko waxal sa bopp suñu benn dërëm mu seedu waaw waaw léegi nag dama bëgg nag dabaatal loolu li ma ko bëgg dabaatal mooy suñu dama lay ñaan ndax man kee fa nekk buur boobu faa dafa nekk rahmatullah alayhi sama xarit la wóorul na ma bëgg na Sénégal te nee na ma loo ma wax ci Sénégal ci wàllu digg rek danaa ko def ma bëgg nga jox ma projet yi ma yóbbul ko ko mu financé la ba jox la sa caabi ndax ñu dabaatale ko suñ càggante googu jàll waaye xam ngeen Cheikh Abdoulaye ca Serigne Touba ca mat ga ca xel ma ca fiid wa ka ne ko wax nga lu baax wax nga lu rafet waaye nag man liggéey Serigne Touba du ma ko jox kenn dama ci nekk lu ma am def ci lu ma xam def ci ba mu àgg waaye du ko jox kenn nga xam ne sama kalaal ci nag Serigne Modou Lo boo leen ko waxoon nag dañuy dem dañ koy gonfler sax far far dañuy dem sax gonfler parce que loolu gis nañ ko fi dañuy dem ko dañuy ñëw fu ñu fa def milliards ñu def cinq milliards ndax faade boobu boobu alal ju dul jeex la yor rek lu ko waaj wax dana ko def ndax mu ngi ne siiw dugal loxoom Tuuba waaye seen ko dugalee koy waxee ak lañ koy wanee ak lañ koy wanee mu ne ko liggéey suñu Tuuba dama nekk lu ma am def ci li ma jox ma def ci bu fekk muy àgg waaye du ma ko jox kenn nga xam kooku doon la mere ñii bii def dara ba far waaw pour nga xam indépendance économique ko xamee ak ak ak ak boobu bu ñu duggantee rek suñu digg di ñaan jumaa Tuubaa ji Arabie Saoudite ko tabax bu benn milliard képp suñu wax waaye seen benn tërëm mu séedu alhamdulilah rabbil am ci loolu ndax gis nga ñeneen ñi ñeneen ñi dugal seen xaalis ñoom dina leen leen jural bu ñu waree ñu waree bu ñu tëbaski ñu tëbaski bu ñu koy sa pexeemul ku ëmb sa sanqal sa kersa waaw kon indépendance boobu nag laa wax ne sëñ bi da cee kéemaane loolu moo tax ñi mu doon seexal leen yónni ci barab yi ñuy buur da leen a jox am mission pour ñu liggéey tasaare yoon bi tasaare xam-xam tasaare diine ñi mën a jàngam ñu jàngal leen fu ñu sañ nekk fasa ci daara nekk fasa ci jàkka dafa ab jàngukaay ñi mënta jàng ñu ñu tarbiye leen ci comportement loolu moo taxoon ñu sos mu sos loolu di ko def tam ak critère géographique bu yóbbu ko fii yóbbu ko fii yóbbu ko fii ñu tasaaroo ci réew mi message bi gën a tasaaroo xam ne islam bi di ko tëggi di ko di ko di di di soli caay yu rëy na nga daan xam ne kaag yooyu yëpp da sëñ bi ko fol indi yaru boppam te ñi mu responsabilisé ku ci ku ci ne sa comportement bi noonu nga defaroo di defaree loolu moo doon message bi waaw nga dem nga jógewaat ci loolu ndax yëf yaa ngi gën a jege ni mu doon organisé ay këram donc wax na jëmm ji wax nañ lenn ci doxalinam ñu doon jàngalee ak ñu doon yare waaye këram gi ni ñu ko organisé yaatuwaayu kër gi booba alal daañu fa ne waaye nit ñi kër yu xat lañu daan def ndaa rek néegi dañuy tàncaloo bëy yeeg xar yeeg yëpp ñu amul ko ëtt moom mu ñëw di daaj kër gu yaatu séparé kër jigéen ñi kër góor yi kër gone yi kër sëñ kër gi day jublu la day yaatu lool boo noppi mu defee ko ay néegi néegi néegi yoo xam ne ay cascade lay doon day am ñeenti koñ wala juróom benn koñ day nekk diw ndax dañ koy dañ koy feteñ di ci ëpp dëppale dëppale per yi dëppale per yi bunt yi nekk saaluma saaluma gànnaar yooyu yëpp logique la boo xam ne ci ciy utiliser da ciy parce que fii Kajoor bool dafa tàng boo fi defee ay bunt kaw fekkoog euh, sow rayon soleil yi da lay sonal ndax bu setee jant bi day suba gi jant bi day dugg mu tàng jër bu ngoonee jant bi dugg ci mu tàng jër mais mu renforcer bunt yi saalum lay doon ak ak gànnaar ngelaw liy circuler néeg bi di néeg bi di sikki am juróom benn koñ wala ñeenti koñ wala juróom benn koñ loolu amu fi woon bi dégg leel fii bëy yi nekk fee yi nekk fee soxna yi soq fee dégg nga sëñ bi ñëw séparé ko complètement kër gi bi day nekk barab kër dongo yi nekk seen barab jigéen ñi nekk seen barab jàngukaay bi nekk barab jàkka ji nekk ci bunt donc loolu science biologique la ak science euh, architecturale boo xam ne lu lu doy waar la parce que lu jub si daanaka xamuñu woon ay ay ay ay ay ay ay cascaré ay casserole xamoon rek ay ak waax xam ne gis nga mi ngi am ci àll bi ba léegi bu ngeen romb mbokk yi waaw moo tax benn naaru gànnaar dañ dana ko xool ba mu yàgg mu ne sëriñ bi léppam kër gi bi ni mu toll mètre yi jeex mu ni ko def ko ay kees te boobu àll baa ngi fi waaye kii ñu dafa kër gu nga dem sa tool dagg fa kër gu la def waaye tuuti ngay dagg as pukus def ci ñaari nekk jët nekk seen nekk soxna si euh, euh, nu nga dégg nga fay la ñuy yeew ba yee xar yi nangam nangam yooyu ñoo dagg kër gu tal noonu moo tax naar bi ne ko cheikhu kulluhu xarqun lil aada xatta daal kër gu tal noonu muy këru njaareem xam lu ne xew na mu def fa ay kéemaan def fa ay xéewal def fa ab jëflante bu rëy rëy boo xam ne def na ko naari gànnaar yi def ko wolof yi ñii mu jënd leen ci xam-xam ñii mu jommal leen ci xel mu jommal leen ci alal ñu mu jëmaleen ci comportement ñu jëmaleen ci ay jikko ba naar ba nekku nag alal moom ni nga koy tasaaree moom dafa yéeme tafarraqatil amwaalu minka shadara madar banaanuka laa tubqi wa kaffuka laa tadar waaw alal ji moom dama ñu koy sotti rek xam naa rek naa tabarkàlla borom xam-xam nañ borom yi wilaay ne dañoo bëgg xaalis sëñ bi nag cii leen nërmee li moo mbokk bu ci xorom neen day wax ne bàyyam da ko daan wax ne ko euh, euh, Sénégal ak Mauritanie ñu ci bari dañoo juum ci sëriñ bi mu ne ko Sénégal dañ ko bëgg-bëgg ba jàppee ko yàlla te du yàlla mu te yi bëggi bëggi ba jàppee ko banque tudd banque mu ne waaye nag loo bëgg ci yàlla boo ko jaaree ci mu am ko loo bëgg ci banque yi tam boo ko jaaree ci mu seetlu ko am ko man ma ko kon def nañ ko def ñun yàlla def ko banque rek ndax ñu am yàlla ne waxin la xam nga naari gànnaar yi moom li ñu leen xëpp ci àll kenn xamuñ ko ku bind kaamil ñëw ku def way ñëw ku def moo tax naari bi wax ne ko tafarraqatil amwaalu minka shadar madar bananuka laa tubqi wa kafuka laa tadar li ngay sotti ci alal ci nit ñi ak leen ko may dañ leen tiit ku bindu kaamel indil ko ku defa yoo rafet indil ko ku xalaat dara loo fa indil ko mu xëy loo xam ne da ngay tiit da ngay tiit ci nit ci ci nim la ko defee kooku mën nañu cee wax lu bare bare bare ci loolu ci li ci def ci ay nit li mu ci dëkkoo ci ay nit délégation ko doon seet si ñu daan tere leen ñu daan jëflante ñoom beneen ba mooy bi mu bisee radiyallahu anhu 1902 jógee Gabon ñëw wàcc Ndar lu tax ñëw directement Darou Salaam wala mu ñëw directement mais dafa jaar ci dëkk dëkk dëkk kajoor yi loolu du hasard lu mu faroon wuti ngeen baal ba ci laaj bi ba ñu ko laaj bu ko neexoon bi bi wàccee Ndakaaru dem Ndar gouverneur wax ak mu ne wax mu ne te day jógee Ndar ñu bisi Tuubaa gi wala mu dem Daaru Salaam waaye lu tax mu jaar ay sànni seeg nangam nangam kër mu nu mu xari ñëw si le kokke lu tax mu jaar foofa am na message bu mu bëggoon a wax waaw donc xam a ngi siiw bi nga bëgg a xam de am na message boo xam xëy na bëgg koo bind waaye wax dana ko dana ko wane ci jëm ndax foofu da bii bi a bi a ilmiya di bi a saqafiya di këri doomi soxna di lu metti xam nga mbirum doomi soxna dafa metti moom pour nga convaincre doomi soxna beneen mbir la waaye la tax mu jógee mu jógee Gabon dem ndar jógee ndar jaar foofu ñu koy gis mu génn di julli di ma ko ñëw du ma leen maa ngi nii rek dara wokku ma dara xuriwu ma waaw Ahmadu Bamba mi demoon mooy Ahmadu Bamba mi dellu si nit ku baax wax ne sooxut amatul léegi bàyyiwut la mu doon wax waaye leen wax ne kaay leen xool ñëw rek def ñu gis juróom ñettee da nga ko ci loxoy tubaab yi yow dong ñun dañ lay sànq nga dellu di dund moom rek moo ko def waaw ñu teg ci ne sooxut amutub léegi bàyyiwul li mu doon te foofu mu jaaroon dafa jaaroon bu njëkk am li xewoon xam ngeen loo am na yoo xam duñu ci dugg ay dëkki sëriñ lañ lool xam ngeen ko convaincre ab sëriñ dafa waaye lan la fekk mu jigéen ndar jaar foofa ab diir sax xam nga dooru ñëw Daaru Salaam loolu message la message bu bu porté bu porté bu garaaw sax am na ci ñoo xam caa ñu wàcce rek di jébul di taalib bi ndax dañoo gis lu ñu jommal ndax xam ne bu fa nekkoon di wax wala muy kii mën nañu wax ne ah day bind di wax waaye dafa jóg ñu gis ko moo leen di jiite julli gi moo leen di jiite naafila mooy waxtaan moo leen di xadisal di waxtaan ak ñoom te na meloon dara soppiku ci loolu yàlla taala loolu loolu message bu garaaw la ndax zone boobu dafa garaaw te li xam ngeen ko def naa rek xam ngeen ko a baax eh, day message bu garaaw a garaaw donc euh, nga nga yëge ci itam man ñu mën cee wax lu bëree bëree bëri mën cee wax lu bëri ci message boobu ak jëflanteem ak kilifa yooyu ak lañ doon wax ak lañ doon def lañ def gannaawam ak lam ca wax am na ci bëri loo xam ne ay teggin wala war a mën tax ñu nettali ko waaye xam ngeen ko ci lu bëree bëri macha allah nga jóge ci loola révolution sociale bi mu def eh, muharabatuhu li tabaqat al ijtimaia al mabniya ala taqsim al amal aw la waaji tuli sera tabaqat nga xam ne xam ngeen xam ngeen Sénégal dafa bëri dafa bëri ay classe ay caste ñaan li ñeeñu lañ ñi géer lañ ñi lii lañ ñi tëgg lañ ñi wudi lañ ñi laalaa sëriñ bi def ci révolution boo xam ne bu doy waar la am na ci loo xam ne sax baaxaayu mag ñu baax ñu ñoo tax ba fam fam ci bëggoon a àgg xëy na àggu fa ci seen xel ñoom itam ak defar bi leen sëriñ bi defar waaye sëriñ loolu naroon am na ci détails yoo xam ne du ma ci waaye su ma waxee rek ne bu jëlee alxuraan mu jàngaloo ko koo xam ne ay maam dañu daan ëw jël koo xam ne ay maam dañu daan jàng alxuraan mu bindloo ko kaamil jël kaamil doomi doomi kaamilu doomi awkat bi dugal ci jaafire yi doomi soxna si ne xotti naa baax loolu day xotti baax bu garaaw lool xotti baax fi'li la boo xam ne misaal bu doy waar la ndax boobu xalaatuñ ko koo xam moom la aw la xamoon ñu jàngal ko alxuraan jàngal bu man ko nga bindloo ko kaamil dem fekk doomi soxna joo xam jàngal alxuraan la xamoon nga dem awloo ko ko aw ba mu aw nga ko jaafire mu ñëw nga jël kaamilu bi kii dugal ci kaa ci jaafire yi kii ne xotti naa baax kooku sawra ijtimaaiya amiqa la jël kenn ci ñu teddam yi bu ko jox kenn ci nangam yu mel noonu xam ngeen histoire bi dama ko tudd ndax war ma waaye la ci la ci gën a yi te bu xamal ne mag ñu ko waroon yar na leen defar na leen nañ ko layalee ba ñu waxee nangam ak nangam mu tee ñu def ko ñoo ko ay mbàkk la wax ñu def ko waaye dañuy ragal bu ñu ko defee ëllëg bu ca nangam sosoo mu indi jëw ndax danañu diw kat sëtub sëtub suñ bee waaye nangam ak mais jëw jëw di def aram lu aram na lu koy defee pour nga xam ne ñoom it ñu defaru lañ ndax xam nañ ni ñuy waxee moom xam nañ ni ñu koy layale te xam nañ loo koy layal rek boo ko delloo ci diine da ko maandu ak islam moo ànd ci nga xam ne day mel ni kon nañ ko la waxoon waaye xëy na ci euh, ci de am gi amul amul amul nañ ko foogee woon te layal nañ ko lay war a fekk tàngu ca merewu leen ca te nangul na leen ko waaw pour nga xam googu defaroon moom itam comme comme nga xam ne da nga xam sëñ mi ni mu defaroo ni la mën a defaree ba ni mu defar dañoo defar ba gis nga ni ko layalee loolu mu bëggoon nga yegg ci itam ci wàllu këru boppam du ma ci sori moom itam ngir war ma ni mu ko taxawalee ak ni mu ko sëqaroon ci këri diine yooyu di ngeen détail yooyu du ma ci dugg ndax war ma waaye nga xam ngeen ne xel la ci yëfandikoo boo xam ne am na ci ñoom ñu bari loo xam loolu moo leen wàcce dellu aussi la ndax bëgg na leen defar gis na lu baax ci ñoom loo xam bëgg na koo jële indi te loolu rek moo ko ci mën boole mu defar ko defee woo xam ne ñëpp a wàcc ñëpp bég ñëpp a sant ci loola loola xel lay doon xel rek ko def def ko waa Sénégal def ko waa Mauritanie gis ngeen suñu sang su baax si bokk ndax Abdoulaye Cheikh Ibrahim soxna Ami Gànnaar na mu ko defee ak ak rafetaay wa ak tànneef ga ak tànn couleur yi ñoom ca boole sax ca liggéey bi muy révolution sociale bu doy waar ndax nii ñu mel ñoom ñi radiyallahu anhum bu fekkoon ne seen seen waajur jigéen de ay ay ñu xonq lañ dañ ne jaadu nañ kat parce que ay chérif la ñu xonq lañ waaye dafa tànn ñu ñuul nga xam bañ nga ak révolution ba tey ba mu ci ànd nga xam ne li muy def yàllaa ko defal lu ko yàlla may la lu mu liggéey lu ko yàlla fay la kon nag du jéem a làqatu ci kenn di ci di ci jéem a euh, jafandu pour nga yóbbale ko di defar yëf boppam radiyallahu taala xaw ma daal li muy wax mi ngi leeram déet ah? bu ko defee nga mi ne yëf ngi bëgg a numtuweeti ñu rek kon kon bu ñu tuddee rek ak Cheikh ak soxna rek xam nga li ma bëgg a wax radiyallahu taala anhum kon bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy tënk daanaka di bëgg a tëj ndax mel ne yëf yaa ngi bëgg a lu mu yu bare bari romb nañ ko dañ ko dañ cee bañ a insisté ndax muy géejal temps euh, dañuy wax ne dund dundug sëriñ gëm yàlla ak topp yonante bi ak topp bi la ko teg waaye day delloo lépp ci yàlla nag li xel mi réeree kaar li xel mi rafet rafet li tawxiid ji dëggu dëggu li defar gi baax baax ak defare gi da koy delloo lépp ci yàlla ndax topp tasawuf topp gaa yu baax yi topp téere bi topp sunna daq daqan daqantewul dara ak jëfandikoo xel moo tax ci fulkul mashxuun mashxuun fulkul mashxuun dama ciy jël ñaari baat rek fulkul mashxuun waaw benn baat bi sax moom gën a wér beneen moom xam naa soo gars yi ma ko danañ ma ko danañ ma ko corrigeel ci li ma tuddee euh, tabaat Cheikh Abdoul Ahad fulkul mashxuun boo xam ne dama ne Cheikh Abdoul Ahad dañ ko mool da ci am bayit mi wax ci biir ne maanaam pour wane ne xel mi ñu xel mu xel mi ñu yéem lépp yàllaa ko defal moom kon xam na ne borom xel la mu ne xaadali yal alimu mali qaada min lawxihil mahfuusi lanti qaada wala bayit xasida gi boo xam ma nga ko tënkee xasidati haadihi lii ba mu ne ba ca ba ca ca tàmbali ba da cee wax ne xaadali yal alimu mali qaada min lawxihil mahfuusi lanti qaada dem ba ca biir mu ne zaka wa aqli min ilahi al alim wa min wasilati madinati al ulum kon moom xamoon na ne ku intelligent xamoon ne waaye rek yàlla la jógee gis baax gi ak tawxiid gi ak dellu gi ci yàlla ci borom am na feneen fu mu waxee foofu rek dama gëstu gëstu bayit bi gisuma gisuma la ko àggalee ma def fa tasarruf tuuti xam naa gars yi danañ ko ci dab bayit bi bu ci afate zaka zaka u saara misdal wax yi bi al mux yi moo moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko të diggante bi ma ne ca xusnu bi fadlihi rida al yi loolu ma ma ko ci laq ci dabu daaxe ko pour pour ko bayit bi waaye la sëñ bi wax dëgg moom mooy zaka aw aqli saara misdal wax am na lu mu ci teg al muhyi mu jeexal bayti ba lam ci teg nag laa xamut ma ma dabb daax ci nag man ne xustu bi fadlihi rida al muhyi boo rëbëri sëñ bi am na ngërëmul yàlla moom waaw radiyallahu anhu ngërëmul yàlla am na kon wa min wasilati madinati al ulum kon li xel mi baax baax kaar li xel mi réy réy kaar li xel mi rafet rafet xam na ne yàllaa ko jox kon nga xam ne yàllaa gi naka jëkk mosu si dégg dégg mosu si mosu si jëfandikoo ko waxtaan na ceeg moom ci lu dialectique waxtaan na ceeg moom ci leer waaye tëpp tëpp lay xam ne yàlla ko jox rek mooy tawxid bi iman bi ak bi nga xam ni yàlla ko may daa nekk daka wa aqli saara misal wax yi wa xustu xustu bi fadlihi rida al muhi maa ci maa ci rabbal alamin kon nag am na ngërëmul yàlla ci baax xel moom muy muy lu ñu mën a wax lu bëree bëree beneen ba eh, xam nga ne sëriñ bi ku ku ku ku ku ku siboon eh, violence la maanaam li ñuy wax doole wala lu lu jëm la onf da ngeen di wax da ngeen gis na fi ne études yu bari yu ñuy def dañuy wax ne ci ci monde adduna bi ñu tudd ñaar naan ñoom muqaawamatul la onf résistance la la non violence di tudd Martin Luther King di tudd Mahatma Gandhi ma ne da ngeen a xamul lu xew rek waaye sëriñ bi kii li mu ci def ñoom yéegewuñ ko sax Mahatma Gandhi jàmbaar la loolu docteur Gandhi ca Inde xeex na indien yi dugg na dund na Afrique du Sud xeex na jàmbaar la waaye violence ko rey te mësta baal tubaab bi dafa dem ba ñàkk pexe tubaab bi jàpp ko rey ko pexe mu jël amu ko jàmbaara lool ndax xeex na leen indi xalaat bind na def na lu ne waaye demoon na ba nangutu sol sax lu tubaab defar day jël wutir bi rabbe loxo di di ko di ko sol waaye tey wut dese woon na grain de violence boppam ba tax na violence ko mujj dañ ko fetal mu ne këpp Martin Luther King jàmbaara lool pasteur la jàmbaara xam la ku ñuul la doon xeex droit droit ñu ñuul ci Amérique dañ doon baax wax la ñu doon wax rek mësta mësta pardonné tubaab dañ ko fetal tëf muy mu daan ne këpp parce que amoon na grain de violence bu des ci moom sunu kii nag moom nga xam ne xayee dala on fi wax ne dafa neutraliser la violence lu ne def nañ ko ci moom mëna luñ ko dara ximal xafid al maanii yugni an il madafii li kulli abdin xaashiin yatlubu xayral xool lu ne jéem nañ ko mënuñ ko dara su violence doon mën ci moom dara kon bu dellu si ñàkk euh, dana wax ne sax nañ sama yoon rey melentaan bokku ci rey melentaan bokku ci sama yoon nee nañ àggoon na ci gëm yàlla gi ak bañ violence gi ba nga xam ne bu ko dara dee matt ngeen baal ma du ko faxas nga xam ne ca gaboo fu mu nekk ci njaareem gi nett ne am na ci néeg boo xam ne dafa bëri woon ay ñu bari ci ñu baax ñi bu ñu dañuy xaw a ci daan yàkkamte wala ñu si ñu leen ba kii ndax fel yi moom bu fa nekkee du raf am ci am ci njaboot gi nañ ko kolaaj am na ñoo xam ne Cheikh Abdoulahi la ñu wax ne moom la borom dër ne ko dafa am lu ñu bëggoon laaj ne Mbàkke mu ne ko lu mu doon mu ne ko dañoo seet yii fi nekk di mel ne luy lore xanaa ni ñu ko yégee da nga ko doon yégee mu ne ko Abdoulahi ni ñu ko yégee laa ko yégee mooy xam bul tax du ma ko faxas loolu nag moo ci mooy kéemaan mu ne ko lii leen Mbàkke ku ñu ko baaxee woon dañuy jëriñ mu ne ko nit ki bu la dara dee mat wala mu lay lor nga di ko faxas jamono ja nga koy faxas sa xel te loolu rek lay nekk da dana génn ci yàlla instant boobu sa xel di génn ci yàlla nag adduna ak li ci biiram jëru ko radiyallahu taala anhu nga xam lu ko mën di faxas lu ko mën di matt rek lu ko mën di kii du ko faxas wax nañ ne sëñ mat sëñ sëñ mat loo dagana bi ñu ko seetee ba mu demee bañ ko tegtal ci gaboo sëñ bi gis na lu bari ci gaboo ba mu demee bañ tegtal ko ba bi teg biñ ko ne fële ko gis mais ba mu ko siyee dafa def nag ëkk la ndax yi sam ci yaram bi gabon godd yaag yay matt ak ak waaye du ko faxas nga ne bu tëb yëngu bi kii naaw ne sëñ mu ne jàppale kii nit bi ndax waaye li ci téeméer mooy ni ñu ko justifié lu tax du ko faxas ndax nee na jamono yaa koy faxas da bëgg dindi lor la kon yaa ngi xalaat loolu yàlla loolu boo taxoon itam du am poche ndax nee na poche li gis ngeen ko yi mu doom poche mu ne poche boo ci defee dara nga soxla ca di ko làmb jamono yaa koy làmbu sa xel ca loolu rek lay nekk sa xel ca loolu lay nekk sama classe ci maag sëñ Mourou Mahfouz ak koy téye sa loxo ngir bañ leneen génn moom amul sa am poche indi ci xaalis li wax tegal bu mu toll tegal foofu waaye gi kéemaane waaye li ko laal boo kéemaane parce que boo ko boo defee sa poche di ko làmb jamono yaa ngi koy làmb sa xel ca loolu rek lay nekk defe naa fi que 5000 francs xaaral ma xool ba xam sa kon sa xel da am instant boo xam ci 5000 francs rek lay nekk waaye moo tax moo tax du ko def radiyallahu taala kon kooku kenn du moom te loolu lépp am xel la ndax indépendance bi lay gën a renforcer moom yàlla gi ak tawxiid bi le le ndax moom diine rek ko jor ndax léppam jàmm yàlla li suñu Basiru Mbàkke tënk ne moom daal Sëriñ Tuubaa boo ko doon tënk da ngay wax ne lenn rek ko ñor mooy jàmm yàlla li am wàccuwaay dëgg ci sëriñ bi mooy jàmm yàlla laysa li shay'in xadun fihi illa al ibada si maa ngi daaneel rek waaw laysa li shay'in xadun fihi illa al ibada jàmm yàlla rek am soxla jox li mu def lépp jàmm yàlla beneen ba muy dafa wax ne fii ñu nekk ak fañ jëm xamu fi lu gën jàmm xamu fi lu gën jàmm la wax de waaye waxut amu fi lu gën jàmm laa xam ne mën na fi am lu gën jàmm waaye waaye xamu fi lu gën jàmm ndax nit ki man ngay am dara am lu ko xam lu ko gën am mën ngaa am lu ko gën waaye mën ngaa bañ a xam lu ko gën sëriñ bi dafa wax ne xamut lu gën jàmm fii ñu nekk ak fañ jëm kon nag nañuy ñaan jàmm yàlla defal ñu jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm ci réew mi defal ñu ko ci suñu yaram defal ñu ko ci suñu njaboot defal ñu ko ci suñu kër defal ñu ko ci suñu quartier defal ñu ko ci suñu dëkk defal ñu ko ci suñu réew li ñu tuddee la république du Sénégal yàlla dafa jàmm def ko ci dëkk yu ñu wëri ñëpp def ko ci Afrique def ko ci monde musulman bépp hmm? waaw waaw waaw soo sa olax islaam insha allah waaw bu ko defee beneen point bi di muy mujjee mooy zahir bu ñuy buy xew muy euh, moom dama ci dénk sax bopp li ci dénk mbokk taalibe ñu bañ cee jéem a y ndax jéem a wutal sëriñ bi am caarin ngeen baal ma jàpp ne liggéeyu sëriñ bi da ci tànn leen na bàyyi la ca des sëriñ bi léppam la war a màggal maanaam sëriñ bi mooy suñu royukaay te day màggal lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi zahirihi wa batinihi dafa wax ne bayte bu boobu moo wax ne yu bajjulu kulli kullakal yawma maa xaadi sama lépp rek day magal sa lépp sallallahu alayhi wa sallam néewul damay magal jëmm ji néewul damay magal hijra bi néewul damay magal alquran bi néewul damay magal mujisaat yi néewul damay magal xasawaat yi néewul damay magal jàngale bi lépp yonent bi rek lay magal kon ñun tam dongo yi bu ñuy magal sëriñ tubaa dañuy magal lépp sëriñ tubaa dañuy magal jëmmi sëriñ tubaa njabootu sëriñ tubaa gi xasida sëriñ tubaa yi dëkki sëriñ tubaa yi cheikh sëriñ tubaa defar magalu sëriñ tubaa gi muqaawa bi sëriñ tubaa def résistance bi def tubaab yi ak njëgal gi njëgal tubaab yi waaye du ñu ne dañuy tànn dañuy lenn rek màggal ko bàyyi la ca des rawatina mbind bi da dégg ko ne xasida yi rek sëñ bi bind la xasida rek bind nañ xasida na wesar bind nañ xasida parce que xasida ci arab dafa am sens mooy ay bayit yu mooy nekk xasida mais sëñ bind leen lu xasida biir xasida yi du tànn ci benn wala ñaar nangam rek lay màggal te loolu xër la waaye ñàkk xam nga màggalal lépp rek ndax sëñ bi noonu la doon doxale ñim njabootam bi noonu la ñu doon doxale ñim yar noonu la doon doxale amu ci lenn lu ñuy tànn di bàyyi la ca des lépp ba baax loo ci gis rek même moom bu bindee sax wane ne lam bindoon ca géej gi ak lam bindoon nanguñ ko loolu waxinam la dañuy wax xasanaatul abraar sayyiatul muqarrabin la waaye ñun li ñu war rek mooy màggal lépp sëriñ bi na màggale woon lépp yonante bi rek alayhi salaatu wasalaam yubajjilu kulli kullaka yawma ma gadin wa insha rabbi la ura dahra daawud suñu lépp rek na màggal lépp sëriñ bi waaye bu ñu tànn leen na dañuy màggal li bàyyi leneen mënees su ta màggaloon lépp à la fois nag da ngay da ngay seet la nga ca tollool rek nga màggal ko na nga tollool waaye ñeneen ñu màggal leneen waaye lépp lañu war a màggal idan al ixwa qabla an euh, naxtim insha allah nuwaxir lakum hada dars bi fi fi fi ojala liannani talabu minni an euh, aqula kalima xawla aljanib alaqlani waljanib alinsani fi xayati cheikh ahmad bamba fa xawaltu taarif bi xayatihi alkarima wa bi marahili xayatihi عندما كان معلما وعندما كان تلميذا وكيف حفظ القرآن عن ظهر قلب في وقت مبكر جدا وكيف حفظ النصوص الأدبية والمتون والشروح وكيف كان معلما مع والده وكيف هاجر مع والده إلى سالم في بورخان وكيف قاوم الاستعمار الفرنسي وكيف استعمل عقله في تربية أولاده تربية يدوية تربية علمية في التزكية والتصفية والترقية كما تعرفون وكيف عامل المستعمرين الفرنسيين خلال ما يقرب من 32 سنة ومع ذلك عفى عنهم وقال في قصيدة مشهورة عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفعه وكيف كان يستعمل عقله في في التربية وفي التزكية وفي التعليم حتى في ملابسه كيف كان يستعمل عقله لأنه كان في الغالب يستعمل اللون الأبيض واللون الأبيض يخفف من الحرارة وتعرفون أننا نحن في بيئة حارة وايضا كان كان يلبس ملابس عريضه wa araadatul malabis tadullu ala eh, taaqlub ma al bi al joxrafia allati naish fiha wa kayfa kaana buyutaatuhu kayfa kaana yastamiluha bi haythu yashuqu baaban fi ljanib alchamali wa baaban fi ljanib aljanubi eh, tadarukan liriyaax li anna albia xaara idan huwa fi xayaatihi alxaasa wa fi xayaatihi alzawjiya wa fi xayaatihi alama kaana yastamilu aqlahu wa fi xutabaatihi wa fi dirasatihi aydan kaana daiman yastamilu aqlahu وفي مؤلفاته معظم مؤلفاته استعمل فيها اسلوب الدعاء كما تعرف ان الدعاء اسلوب خطير لانه طلب من الله ان يفعل او ان لا يفعل ومشيئه الله لا معارض في اعماله اذا هو يطلب دائما من الله وسلم كله وقال في احدى قصيده وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمه للمصطفى محمد وقلت بان هناك ثلاث علاقات رئيسيه علاقه الشيخ الخديم بالله وعلاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلاقته بالوراء alaaqatuhu billah yaabuduhu wa alaaqatuhu bir rasul yaxdimuhu bil matx wa bil xidma wa bil itsa wa alaaqatuhu bil wara yanfauhu leylan wa nahaaran idan hada bi ixtisaar huwa yaani mujmalul kalima insha allah ونتشرف بحضوركم وإن شاء الله نتمنى لكم إقامة طيبة في السنغال وفي طوبى بوجه خاص وكلنا مدينون لمصر بهذا العلم وبهذا العطاء الوافر التي تفضل والشيخ الخديم كان كان يتعامل مع المصريين اولى مؤلفاته طبعت في مصر و و وارسل بعض الموريتانيين ايضا الى مصر لشراء الكتب يعني هو كان يعمل قيمه مصر وقيمه الاثر الشريف وقيمه تلكم البلاد العريضه بلاد الدنيا عاصمه الدنيا ام الدنيا مصر الحبيبه بارك الله فيك وشكرا على هذا الحضور kon mbokk yi tey salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi jégalu nag xam naa xaw nañoo xaabaabal waaye yi fi dong rek yi fi dong moom macha allah li may wax ne ñun dongo ah déet waay waxtaanu murit moom moo waxtaanu pël sama mbokki pël yi moom waxtaan balaa neexee ñu ne naga baax naga baax rek naggee ko mojj naggee ko mojj waxtaanu murit tam sëñ sëñ sëñ baax rek sëñ bee baax sëñ bee amul morom sëñ bee defar sëñ bee mën a defar yàlla nañu ko wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Mouhamadou Mamoun Cheikh Fadal jazakallahu xayran amiin amiin amiin yal na yàlla fay bi nga xam ne moom moo doon waxtaane dañu jàngatal dundu sëriñ bi am xelam yi nga xam ne réussir na ko ci wàllu xel ak ci ak kenn ku nekk xam na ne mel na ne eh, lu lu nëbbu la woon waaye nekk mu ne ñàkk di waxtaane sëriñ bi ci mel nii kon ñu ngi lay sant bu baax rawatina nag ni nga ko indee kawe na sa njort kawe na sa njort lool kon yàlla na yàlla eh, gën laa yàggal te gën laa wéral mel ni xam naa ne waxtu wi dafa dafa jot sëkk noo dañu leen di fàttali rek incha allah ne suba jàmm ñu ngi war a waxtaanee al amn wal istiqraar fi l mujtama ahamiyatuha wa muxawimatuha maanaam solo si nga xam ne eh, solo si ñu ah, nattukaayu jàmm akuk dal ci askan wi lañuy ñuy waxtaane suñ moom moo koy moom moo koy waxtaane suba jàmm incha allah ci waxtu wi kon ñu ngi sant mbokk yi ñu doon topp ñëpp ci MK ak euh, rajo yi ak télévision yi di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan